pare jox ma may ma kii may ma beñe may ma beñe da ñëw rek toog naan may ma beñe waaw lan mooy kii nit yéen ma invité heure bi te joxu leen ma añ lekk dafa jotagul bañ lay may beñe mu naan may ma beñe leen ma reer joxu leen dafa am heure lekk leen lan lekk bi dafa am lekk dafa am heure da nga fa ñëw rek ne jox affaire wala kaana yow yakay yaa wala kaana jox ma ma lekk naan jox ma ma lekk yow gis nga yow. waaw xam naa la xam naa la. Ah. xam foo ma xamee. yow man doom biñ ma njëkk a tuddee. sa xarit boo ko jur Ayda. Gunaas. Hmm. Ayda xaritu buri bàcc li dëggantaan la. la ban beñe nga bëgg. may ma non mais laisse-moi continuer. waxal rek ban beñe jaru ko Ayda doomam. benn suñu rapport benn rapport bu moo doon rabandool ni Ahmed waaw mooy papaam taawu Aïda man lañ ko tuddee xam naa ko xam naa ko ban beñe nga bëgg beñe dugub am na non dugub amul waaw ah, mais ma beñe boo yor en fait dama dara lu nekk sa mbir pour mu mën a affronter sa gars yi quoi waaye ku bëgg lekk nga di xam naa <laughs> xam ma rek dina tax ngay kii nii waaye naam ah kii kat kii kat xam naa ni xaw ban gan nga awat waaye bëgg na lekk de waaw may ma rek ñëw rek ne may ma beje may ma rek wax baax ay fuu daal ngay invité léegi beje beje may ma beñe rek non non am na leneen lu ma dégg mu ne xam na la. waaw xam waaw kii day waxtu rek. non waxtu wu ma. Eh, la wa ngaa la. waaw dëgg la dëgg la xam naa la wala xaw ma la. wax du la gëm. koo wax du la gëm yow boo wa mbartaru lycée Limamou Laye jëm Gunaas avant ngay egg. egg garage su yi. waaw dëgg la. waaye ma dégg maa ne. mais mais balaa est-ce que dégg nga nit bi la bi la maman euh, mu ne nee kii fuu day waxtu rek. <laughs> man rek maa ko gëm kii comme ko gëm. alors <laughs> euh. yow bay woo ma defal la sa plateau. non ma tuuti rek. man na man xama tollu ma ni Balla Gaye. c'est ah. eh, léegi am demal. Ah. man maa lay invité sama kër gi de waaye tey. relateur waaw léegi kay toog ma lal bu ko de da nga koo bokkoo waaw da nga koo bokkoo rek installe toi oui ma Babacar mos ngaa gis gan gu mel nii. bu la neexee nga nii. Ah, entre temps ah <laughs> waaw waaw mais gan gan bu fekkee bu fekkee waa dëkk bi seeni loxo yi dafa kuuñ <laughs> dafa kuuñ dafa yeewi béy ah loolu dëgg la waaw bu malal arrête de faire genre <laughs> malal il faut arrêter de faire genre ah. parce que yow ñëw nga. Ah, malal ma ne la installé nga tëma dem ca dem ci dem ci maman. di ko laaj ay ay lu nekk ba pare maman nag dafa mel ni yéen ñaar na ngeen a xamante ni. non sama sister parce que doo ma ci ñamal tuuti. sama si non sama hmm? euh, sister la. la parce que effectivement. ndeysaan man doom biñ ma njëkk a tuddee. ah macha allah ay 2004 2003. xaritam moo jur doom boobu. macha allah donc euh, Niga Ahmed mu ngi France actuellement. man moom ñoo doon rabandoo. si bataillon blindé. macha moom mu tuddee doom. Uh-huh. boobu mu ngi am soxnaam soxnaam Aïda. Uh-huh. Aïda xaritu buri bàcci li la. d'accord moom ak ñoom buri ñoo bokk koñ mais boobu. mais boobu ndeysaan souvenir bi may am si moom moom mu ngi am ay ñandaxit ci bakkan. <laughs> chou maman kii xam na la non maman je suis très surpris de la voir trè belle et puis sa noirceur xam nga. oh là là oh là là oh là là <laughs> oh maman ah, maman bul jooy nag parce que <laughs> yow boo kontaanee rek da ngay jooy bul jooy dégg nga noppi naa mais man dafa am benn wéy bu ma bëgg a wéy ah. xamoon naa ne daañu daje ah. waaw xamoon <laughs> naa ne daañu daje fii ci Walf TV <laughs> xamoon naa ne daañu daje xam nga dama koy wër di ko wër di ko wër di ko wër léegi nag dajee nañ nag tey ci kër Sidi. maa la ko loqatil waaw yaa ko loqatil nag yow daadaan nga ah? maa la ko loqatil mu boole ci di ma tendance. Eh? di ma frustré. <laughs> non non tendance waaw dafa ñëw neen daa xiif. Ah? moom dafa dem am fulla dem di jëntil ba bi rek. waaw non woo bi malal daf. bi nga koy wax pour invité ko la daf ma doon jaay ne moom chroniqueur la à jàkkaarloo. émission suivie non loolu nga tudd lan la loolu lan la turu lan la. wala turu non jàkkaarloo c'est une bonne émission. ah ah ok ah émission la. ah oui télévision Futurs Médias. Ah, loolu loolu télé boobu nga tudd moom. Ah. tur bi noonu télé boobu fu mu nekk fii. ah almadi gi Ah bàyyi sa bàyyi sa xel mi ngay fowee malal kii def dafa ñëw pour attaquer la de <laughs> ah doo ko wax doo ko wax doo ko wax jàkkaarloo nu mu toll ci réew mi ah <laughs> non wax ko jàkkaarloo nan la toll ci réew mi attends bi de dama bëgg a cokkaas waaw ah, a cokkaas <laughs> te doon nangu doon nangu ma cokkaas ah mais mais ñun dañuy am mbégte dalal vedetu wala wala kuy may cafka euh, jàkkaarloo ah malal léeg-léeg mu mu mu mu jël mu jël soos mi rek jàpp ci kaani gëj naa càpp de yow gëj ngaa seetaan de léeg-léeg ma wax la affaire yow <laughs> <laughs> ma foog na xamoo yow ma foog na xamoo émission géej. am na ma am na ma coronavirus moo tax. parce que parce man man tey damaa jaaxle xam nga ma jaaxle man tey soxnaay kër gi. nga xam ne sama soxna la moo ma compte tey ànd ak malal. loolu wax na amee naqari. moo tax malal lay naqari ah. nee nga ko capp nga. waaw mu ne la noo def ba xam ne. boo xam ne loolu dafa <laughs> mais Babacar vraiment dëgg dëgg bu neexee rek dëgg. Ah. yaa ngi suivre jàkkaarloo Elza Peto. Ah, ah, yenn saa yi rek. <laughs> nga ne nga nga ne yenn. yenn saa yi rek. léeg-léeg may yër rek après delluwaat saa yenn saa yi rek ah. alors vraiment ça fait plaisir mbokk téléspectateurs yi ni ñu leen koy defalee rek ah, gaaw gu nekk. bu 21h jotee nag ñu dajee ci émission Kër Sidi. fas yéene ànd ak yéen ni ma lay faral di kër gi nag dafa nekk kër goo xam ne ni moom euh, euh, euh, dañuy kaaf dañuy reetaan waaye itam dañuy waxtaanee loo xam ne lu am solo la ci réew mi ndax nag mag ma daf doon wax naan réew bu ñu ko bokkee bu ñu ko paccoo nañ ko péncoo kon nag fii loolu la rek dañ koy péncoo waxtaanee ko nit ñi jëlee ci njëriñ waaye itam divertir nit ñi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla boo toogee di seetaan émission bi da ngay am envie eggali li nga xam ne moom moo di émission bi tey nag ñu dalal fii ay euh, ay gan yoo xam ne vraiment du ma ne ay gan lañ gàng lañu ci réewum Sénégal gàng lañu ci àdduna bi ndax bu ñu waxee Malal Talla Fou Malade ñëpp xam nañ ko ak yëngu-yëngoom ci réew mi waaye bu ñu waxee aussi Babacar Justin xam nañ ko di taskatu xibaar bu xarañ ah euh, moom itam ku ñu ràññee la ci réew mi euh, ci kanam tuuti sax nañ leen wax yu bari ci moom yu ngeen xamutoon yooyu dama koy rënk dama koy denc duma ko dama ko dama ko teel a sànni quoi dama koy denc donc nii rek lay demee ñu fas yéene nag teg waxtaan xam ne wax dëgg waxtaan wu mucc ayib lay doon euh, soxna Aïcha waaw waxati rek lu am solo delloo buum ca mboy boy ga euh, ñëwati ngeen dalati ngeen jàmm ci kër gi leen di kër di c'est toujours un réel plaisir di leen dalal ci suñu biir kër dalal itamit invité ay ndaanaan képp koo xam ne ñëw nga rek indaale sa touche boo mën a am rek ci wàllu euh, dox Sénégal nu muy doxee ci wàllu actualité wala ci buzz wala sax ci defante ndax tey moo xam naa defante du ñàkk ci plateau bi yow yaa dem jëlee journaliste groupe des médias mm-hmm. indi di ko jàkkaarloog Malal Talla li fekkeew ma ko ko du sama cër ak temps yi nga xam ne des média ak malal taala du ñu laale nga jàkkaarloo nii lii sama sama gàcce ma sama sama am ngoor ma yu ma ko. boobu moom rëgg ko. ma rëgg ma rëgg ko nii kay nii parce am na lu ne kët na jot. am na lu ne kët na waaw waaw Malal. yaa ngi communiqué bu ma jot jot léegi léegi daté du du 20 euh, du 20 janvier euh, waa euh, Y'en a daal di koy signé ko signé ko sax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa FD FDS bu. Babacar Diop daal di koy co-signé également ak euh, Frapp France Dégage bu ñoom Guy Marius Sagna ñu ci décrier également l'arrestation de Boubacar Sèye président euh, bu Horizon Sans Frontières d'après li nga xam ne yëkkati na kàddu wax ko nii lu jëm ci wàllub euh, émigration clandestine Union européenne daan naa jagleel état bu Sénégal lu toll ci cent dix huit milliards de nos francs jox leen ko ngir ñu xeex mbas ngir ñu xeex plutôt émigration clandestine mais xaalis bi duggul fu mu war a duggee yéen en tant que membre bu euh, Y'en a marre déjà doo ñu tënk rek communiqué bi li ngeen ci tënk. waaw d'abord euh, damay kontaan ci teew ci émission bi. Mm. parce que même Walf c'est un média bu am solo bu liggéey lu am solo si. Mm. Euh, liy suuxat démocratie ci réew mi. Mm. Mm-hmm. di jaajëfal Sidi Lamine Niass di nga xamante ne xëy na moom la émission bi. yor turam kër Sidi. di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee. muy koo xamante ne ku ñëpp fonk la ku ñëpp respecté la euh, ci taxawaayam ci ci réew mi. Mm-hmm. donc en fait dama si profité également di wax ni Y'en a am na fukki at ci ren. Mm-hmm. mu ngi juddu le 11 janvier 2011 ñu xamal ko presse bi ak médias internationaux yi ak nationaux yi le 18 janvier 2011 ci ren mu ngi am 10 ans mu am 10 ans yoo xam yooyu nag li ma ci jàpp mooy 10 ans la yu am solo ci wàllu ay ndaw yoo xamante ne taxaw nañu pour seen réew di ci jaar di félicité yaanaamaariste yëpp cat ba cat wërngal këpp esprit yaanaamaar yi nekk dans la diaspora esprit Y'en a yi nekk dans les dix quatorze régions du Sénégal di jaajëfal suñu coordonnateur Alioune Sané ci yor bi nga xamante ne moom la yor mouvement bi et aussi di ko ñaanal mu am ndam ci li nga xamante ne moom la dëgmal ci wàllu liggéey bi di wax ni taxawaay bi taxawaay bu am solo la parce que ñi ko ŋànk sos ko mhm. depuis boobu ñu ngi ànd kenn mësu leen dégg ci histoire xëccoo seen biir lu problème garaaw garaaw dinañ ko néegi yëtoo waxtaane ko ba wut ci saafara li ma ci jàpp également mooy bëri na ay problème yoo xamante ne am na fii si réew mi mouvement bi taxaw ci nekk aussi benn mouvement bu influencé ay mouvement fii Sénégal nekk également benn mouvement bu influencé ay mouvement ñu juddu ci sous-région bi ba ñun ak ñoom sax bokk nañ benn plateforme tuddee ko Afrique yi di amal chaque année l'université de la populaire de l'engagement citoyen tuddee ko UPEC di ci liggéey liggéey bu am solo yu mel ni nag bu amee si réew li dal euh, monsieur Sey li ko dal bu amee li ñu wara njëkk a taxaw def ci réew boo xamante ne démocratie la mooy on doit entendre des voix des voix doivent se lever pour dire effectivement li am forfaiture la li am jaay doole la lu waral ñu lëkkaloo ak FDS lëkkaloo effectivement ak FRAPP lëkkaloo ci ak yeneen i sénégalais pour ne lii injustice la boo xamante ne buñ ci taxawul si mu jëm du baax parce que effectivement li naan lii raam ci ñag bi la jëm parce que de plus en plus on cherche à étouffer des voix Tout et dans une démocratie pour mu dund il faut permettre aux voix de s'exprimer il faut laisser les voix ñu wax donc euh, voix yi dañ naan war a bàyyi pour ñu wax pour effectivement nit ñi mën a defaraat li mu wax gisuma ci problème dafa ne Union européenne def na jox na nangami milliards. 118 milliards. 118 milliards pour xeex immigration clandestine koom-koom yooyu fan la nekk fan lañ ko def loolu c'est une démarche de transparence maanaam alerte la ak veille parce que dañ ne ndenkaane bu amul saytu luubal ba dafay yomb et on doit apprendre à surveiller les gens pour les programmes pour lesquels ils ont été élus maanaam boo falee nit ndax dafa ne la dinaa sàmm koom-koomu réew mi dinaa jox ndaw ñi liggéey yow nga seetlu li ni am na lu ciy sooxe sàmmonteewul ak effectivement li mu dige woon dafay baax pour nga fàttali ko. Mm. on di la confiance n'exclut pas le contrôle. c'est parce que des Sénégalais on élu le président Macky Sall pour une deuxième fois et que c'est cette élection moo permettre effectivement à ce que ay organisations internationale ay institutions ay partenaires ñu mën a mettre à la disposition de l'État du Sénégal ay moyens pour ñu mën a xeex jafe-jafe yi. cent dix-huit milliards yooyu ci la bokk léegi bu ko monsieur Sey souligné ne wax ko ci interview dama yaakaar ni rek ci dëkk boo xamante ne xeex impunité moo la tax a jóg ci dëkk bi nga xamante ne transparence moo la tax a jóg ba nga teg ay nag ba nga teg ay IGE teg ay corps de contrôle pour man ñu mel noonu ce ne sont pas des adversaires c'est des collaborateurs c'est pas des gens qu'on en fait waruñu leen xoqatal waruñu leen xoqatal parce que buñ leen xoqatalee mooy effectivement suñu doxalin leerul c'est-à-dire bu ma nee man sama gis-gis leerul ni ma gisee mbir yi ni muy doxe tey na sama xel dangeen may woo comme un expert ne effectivement kii de li muy wax mhm. ah waa nañ ko xool ñan laa dénkoon est-ce que xaalis bi waa Prodac laa ko jox pour ñu jox ndaw ñi liggéey est-ce que ministère de l'emploi laa ko jox pour ñu ndaw ñi liggéey est-ce que dama ko def ci agence des pour pour pour les jeunes pour faciliter leur employabilité est-ce que dama ko dugal ci ay formation ñu saytu ku nekk pàcc bi nga am ci milliards yooyu liñ la ci jox pour jëmale ko ci ndaw ñi est-ce que def nga ko ci mm-hmm. loolu lay xalpulaar bi wax hoolare nde ko fawru kanŋe so neɗɗo halfinima hoolimama ko ɗum woni hoolare mm-hmm. mais ñu delluwaat rek mais la confiance n'exclut pas le loolu jarul nit di dem ba aéroport nga opposé wu ci tukkeem ba pare effectivement après ne ko yóbbu ko kasso ba pare defal ko mandat de dépôt mm-hmm. pour man yu mel noonu rafetul ci démocratie dafa amu woy bu rafet bu Sénégal amoon ci démocratie mm-hmm. Abdoulaye Wade nit ñi dañ jàkkaarloog moom xeex moom bi mu bëggee effectivement def le quart bloquant nit ñi njort ni Ablaye Wade dafa bëggoon def euh, dafa buggoon def dévolution monarchique bëggoon dénk réew mi doom ji en passant par la stratégie de la vice-présidence mhm. nit ñi xeex loolu ñëpp ànd ci ah sëriñ si ànd si euh, société civile bi ànd si parti politique d'opposition yi ànd si ñëpp ànd xeex on ne reprochait pas à Wade effectivement que yombalalul yenn yi ci réew mi mais malgré xeex bi ñu doon xeex Abdoulaye Wade Wade n'étouffait n'étouffait pas daawul tere nit ñi xeex à chaque fois on se rappelle tous les vendredis doon na de chaque mois doon na jox nit ñi opportunité d'expression à la place de l'obélisque wala wala feneen ak feneen nit ñi génn di ñaxtu ba effectivement ñaxtu yooyu bokk na ci li yee askan wi ba askan wi am beneen taxawaay donc bu ñu fi jëlee nit indi fi beneen nit nit boobu jaay ñu programme parce que programme c'est sur la base d'un programme que les populations votent nit ñi ñu votel la nga ne dinaa xeex ger dina yoon dootu fi jeng dinaa def lii dinaa def la après finalement loolu yëpp nga commencé waroog moom baax dafay baax na askan wi tiit mais askan wi ñi war a gën a tiit pour man effectivement lu mel ni c'est les jeunes qui doivent se mobiliser parce que ce qui est indiqué c'est 118 milliards destinés aux jeunes pour leur insertion donc dafa mel ni bi may li may dégg yëpp depuis boobu ba léegi ce sont ay ñoom aluntune ay ay mag ñoo ciy wax mhm. alors que lan mooy destination wu xaalis bi ñu wax mhm. destination wu xaalis bi ñu wax effectivement destination wu pour ndaw ñi la. Hmm. bu ndaw ñu nag toogee croiser les bras lii am rek mooy am mooy ils vont brave la mer ils von braver le désert ou bien ils vont se radicaliser au niveau local c'est-à-dire ci biir dëkk bi ils vont devenir des agresseurs ils vont devenir tels parce que effectivement. les ressources li ñu voté assemblée ne dafa war a jëm ci ndaw ñi li ñu li ñu li ñu ay partenaires jox parce que les partenaires également ne mettent pas simplement de l'argent à la disposition de l'État du Sénégal pour yaama neex mhm. c'est en contrepartie de peut-être di ngeen am lii ci pétrole bi en contrepartie di ngeen am lii ci géej gi en contrepartie en contrepartie et cetera et mhm. donc yu mel noonu mhm. dama jàpp ndaw ñi kenn waru leen jiitu mhm. Mhm. li nit ñi mën mooy alerter rek parce que effectivement mhm. mouvement citoyen yi ak société civile bi les mouvements sociaux les journalistes les artistes même font un travail de veille travail de veille boobu mooy am na loo xamante ne dañ koy tënk ci ay document en français en anglais. la population lambda peut-être du ko mën décortiquer. et effectivement ce sont ces mouvements citoyens et ces euh, et ces et, et, et ces artistes ou bien c'est la société civile. Mm. ou bien les partis politiques d'opposition yoo xamante ne dëkk bee leen ñor c'est eux qui font un travail pour que effectivement que la population puisse avoir. euh, pour puissent avoir accès à ce type à ce type d'information pour, pour effectivement pour mën a xam léegi nag bu ñu la xamalee ba nga xam mhm. pour man foofu la sa responsabilité tàmbalee parce que boo xamul amoo responsabilité. d' accord dinañ si euh, gën a yaatal euh, malal mu wax lu am solo nekk dañu euh, autorité yi dañu am l' obligation de rendre compte parce que bépp protocole boo xam ne signé nañu ko de l' à. à l'état du Sénégal euh, c'est vrai que am na yenn protocole yu ci juddu yoo xamante ni soo utul sax suñuy ressources yi nga xamante ni war nañ ko mën a am di ko exploiter booy seet sax ci yooyu lay bokk Babacar Justin euh, Meng yow ngay taskatu xibaar ci groupe des médias euh, ñu xamee la également ci mouvement gëm sa bopp bu bëggaan géy dani ñu bàyyi la nga nuyoon teeg téléspectateurs yi laataa ñu dugg ci sujet bu am solo bi nga xamante ni nii moom malal tënk na ci léegi-léegi lu am solo oui merci beaucoup Aïcha merci beaucoup aussi bi tey ak euh, Malal maa ngi koy nuyu. et di leen euh, ziar di rafetlu aussi sama si biir émission bi. bon pour revenir juste à votre question tout à l'heure euh, euh dañu soulever affaire arrestation de Boubacar Seye mm-hmm. mu nekk une arrestation très arbitraire parce que dafa euh, parce que rôle d'alerte dafa war a am si dëkk tey jii nii lorsqu'on parle de 116 milliards allant dans le sens de la promotion et de l'emploi des jeunes pour xeex immigration clandestine pour mën a tàggat ndaw ñi yaakaar naa ne tey boo demee ba am ku soulever def alerte wax yaakaar naa ne tey lu ñu waroon def mooy soumettre ko tey ay question laaj ko wala jox ñu ay preuve nañu fii la dugg si sama xalaat ça c'est un intrant Babacar bu ñu demee tey ba dans un pays bu mel ni Sénégal nga xam ne démocratie bi dañu koy wax fu nekk di wax ne que vraiment Sénégal c'est un pays démocrate ñu dem ba benn mois boo xam ne ñu ngi opprimer ñi nga xam ne ñu ngi di société civile bi est-ce que dëkk boobu la mérité na di bàkkoo démocratie oui oui si parce que euh, tey li mu la mën a wax ne je te rejoins mooy dafa am deux poids deux mesures xam Boubacar Seye non seulement dañ ko arrêté brutalisé ko téye ko entendre ko sans la présence de son avocat placer ko sous mandat de dépôt mu nekk perspective instruction yoo xam ne mun na dem ba six mois tey toujours justement parce que dafa te bu ñu fàttale fàttalikoo tey amoon na benn ancien ministre français Édouard Philippe mas fi yëkkati ay kàddu ne Sénégal jox nañ ko lu war a mat jox nañ ko lu nga xamante ne tey ay milliards la yu bëri yu tudd yu ëpp yu Boubacar Seye tudd mhm. ne jox nañ ko ko pour mu xeex immigration clandestine te xam nga nii boo gisee il faut ñu xool lu ñu weesu lu motiver Boubacar Seye ba mu wax loolu. Mhm. parce que tey ñaata nit ñoo dee tey ci géej gi. Saint-Louis ñu ngi vivre ba léegi seen drame. Mhm. benn quartier. Mhm. mun nañ wax ne sax genre naufrage locale la moom moo fa am. ay ndaw ñoo xamante ne dañoo jël pirogue à fortune. ay yaakaaru famille daal di dem di aventurer wu ba de ba décédé. ñàkk ci seen bakkan tey. te Boubacar Seye tey bu demee ba gis. hémorragie boobu di am am na droit mu interroger wu fan la ñu war a mën a def xaalis bi. gis nga tey euh, euh, euh, ndaw ñi li nga xam ne moom lañ leen di jagleel il faut que ñu koy orienter seen formation que ce soit ak si loo mënti yëngu xam nga tey dafa am benn xalaatkat français Victor Hugo parce que Malal Sànq mu ngi wax affaire de d'agression affaire d'insécurité Victor Hugo danaa daan wax quand j'ouvre une école je ferme une prison. Mm-hmm. bien vrai que c'est mot de dix mais ce à sa place dans la société moderne. Mmh. parce que tout est dans l'éducation et la formation. même la sécurité est dedans. et que malheureusement ce qui se passe aujourd'hui il y a une certaine passivité. parce que ñi nga xam ne ñoo waroon jóg wax tey dénoncer tout simplement cette irrégularité cette arrestation illégale. et en quelque sorte arrestation boo xamante ne mën nañ ko jàppee lu arbitraire waxuñu tey dañuy gis ay aluntine ñi nga xamante ne tey ñu ngi dem Euh, porté nañ combat tey amoon na ñu leen waroon sax tey ñëw secondé depuis le euh, comment dirais-je depuis euh, touche pas à ma constitution mm. en 2011 jusque là ñu dem bay joxe tey reliquat de leur force intellectuelle am ñoo xamante ne tey dañoo taxaw croiser le seen ba te ça pose un problème de la dégradation de la démocratie sénégalaise mm-hmm. parce que tey jii nii euh, Fou Malade mu ngi koy wax tey dama jàpp ne il n'y a pas de démocrate au Sénégal. il peut y avoir il peut le mot démocratie mën na exister Sénégal. Mhm. mais il n'y a pas de démocrate parce que wax na Ablaye Wade. lorsqu'il s'est rendu compte que peuple yi dafa jóg ne ko lii du fi amee il a mhm. été démocrate mhm. te loolu nag il faut nga am grandeur pour mun ko respecter il faut nga am grandeur il faut nga am considération ak respect envers ton peuple pour le faire pour éviter tout déséquilibre qui peut coûter qui entraîner un drame parce que kenn xamul tey fan la dëkk bi mën a dem ci situation yi ñuy dund ni mm-hmm. dogu dogu dogu ma ko sax parce que dafay wax grandeur wu euh, maître Abdoulaye Wade euh, am na ci ci ci ci staffam ku ko jege. jege sa son rek ci moom daf ma wax benn jour mu ne ma euh, dafa toog ministère am. Mm-hmm. président woo ko je veux pas citer de no quoi président woo ko ne ko ñëwal léegi urgence. bon moom dafa tiitoon mm-hmm. alors bi mu àggee ci moom pour moom lu ne la Abdoulaye Wade ko lan moo xew ci réew mu ne ko réew mi dara xewu ci de lan da nga cee dégg coow mu ne ko non dama déggul coow dama gis lépp na takk coow amul hmm. mu ne ko waaw mu ne ko mais loolu erreur la réew waruñ ne tekk mu ne réew mu ne tekk coup d'état mi ngi waaj il faut que nit ñi di wax may xam leen nit ñi di wax ak nit ñi di kaas mooy li nga doon wax na pour dëggal ko keroog bi ma koy expliqué affaire dafa ma yéemoon ma ne kon maa ngi doon comprendre pourquoi président Abdoulaye Wade doon bëgg réew mi di bàyyi nit ñi ñuy wax kon cela veut dire moom ci waxu nit ñi da doon sukkandiku pour pour pour mun a pour mun a dem c'est tout juste rek pour dëggal loolu muy wax c'est vrai certes c'est vrai ah parce que réew di wax ko alerter mais aussi ñiy wax est-ce que ñu ngi sóor waxin gi parce que xam nga wax yomb na mais waxin aussi dafa jafe xam nga affirmer ak alerte c'est deux choses différentes mm-hmm. Mm-hmm. vrai ou faux voilà est-ce que nit ñiy wax ñu leen di interpeller si seen biir yi wax bu ñuy wax dinañ sóor na ñoom kat li ñuy wax ñu ngi koy affirmer alors que ñu ngi affirmer lu ñu xamul oui xam nga en fait lii lii. Kaaw Boubacar Seye. Boubacar Seye wax. Mm-hmm. boo delloo un peu ci. Euh, Lex Leg Africa benn ONG la ñoom ils ont publié effectivement un rapport boo xamante ne euh, effectivement ça va dans ce sens là mm-hmm. te rapport yooyu également wane na ay manquement mm-hmm. euh, yu demee noonu bu amee pour man dans une république responsable li war mooy ceux qui doivent être inquiets c'est pas ce qui dénonce les dysfonctionnements mm -hmm. ce qui doivent être inquiets mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk ay responsabilités parce que écoute même bu ñu considéré wul ce que disent les rapports bu ñu xoolee tolluwaayu dëkk bi les jeunes ne travaillent pas loolu lu ñu mën a constater la parce que rien que ci benn intervalle bu ndaw on a perdu plus de quatre cent quatre vingt et quelques jeunes. ci biir géej gi jeunes yooyu ils n'étaient pas parti kenn yónniwu leen ils ont pris leur responsabilité te seen objectif wu dem mooy seeni réew mënul mënul firi seen gént. Mhm. dañuy dem firé ji seeni gént ci yeneen i réew. réew jàmm mhm. mënuñu jël avion. parce que effectivement procédure yi ngay jaar pour am visa mm-hmm. da ngay fay sa cinquante mille buñ la mayul visa du duñ la ko delloo mm-hmm. et que nos états se sont accordés avec certains états ñu jox leen xaalis ñu ne ñoom mun nañ régler problème bi il y a même il y a même des subventions pour nga nekk foofu pour ñu subventionner ne la est-ce que bëgg nga dellu sa réew moyennant un montant pour boo fa demee bay pour boo fa demee tel même yooyu sax doxul parce que nit jóge na fi Europe waa Europe jox ko xaalis pour mu ñëw liggéey ci réewam fi bu ñëwee pour ñu mën ko jox suuf bu fekkee projet mbay la du yomb bu ñu bëggee beneen affaire pour ñu jox ko ko du yomb parce que effectivement ni réew mi bindoo la ci wàllu doxalin c'est-à-dire suuf si xam nga boo jëlee li ëpp ci suuf si nga jox ko effectivement ay étranger mm-hmm. ñu di fi bay xaal te doomi réew mi mën a bay xaal mm-hmm. donc finalement te ñooñu bu ñu amee seen i bénéfice seeni réew lañ koy yóbbu duñ ko bàyyi si réew. Mhm. ñu ne effectivement les accords de pêche ñu ne bato yi fiy bay yi fiy yi fiy yi fiy napp di jël jën bato yooyu ñoo ëpp puissance fuuf suñu pirogue yi parce que ñii ay méthodes artisanaux artisanal lañuy la ñuy nappe mhm. Mhm. ñii ay mbaal la ñuy jël et cetera et cetera et cetera wane yooyu yëpp mais alors que ñu ñu ngi en deux mille vingt suñu ree waroon toll ci effectivement mën a xool sax nu ñuy defaree ay gaal yu wala jënd ay gaal yu ñu moomal suñu bopp. Mm-hmm. dénk ko xool yan procédure la ñuy waxtaan ak nappkat yi dénk leen ko. Mm-hmm. parce que moi je pars d'un simple fait benn waay bu toog télé ne man nappkat laa woon mais dama xool sama benn sama papa paa yi doon nappi. te dugal ñu ci napp ñoom bu ñu ñooñu ñooy wëlbatiku di ñëw di ñu ñaan jën mhm. bi ma xoolee image boobu ci laa xam ni mhm. napp bii may napp amul benn jeexital mhm. te donc dinaa dem ci géej gi dinaa fa def lu toll quinze jours te su ma fa defee quinze jours effectivement du ma am sax trente mille bu ma ñibbisee donc finalement damay jël sama gaal soppi ko moyen de transport de clandestin dem Espagne toog fa d'accord d'accord donc en fait. pour man. pour man on doit apprendre effectivement. à considérer les jeunes c'est-à-dire bu bu nit ñiy dénoncer il ne faut pas simplement il ne faut pas les regarder comme des adversaires mm-hmm. parce que ñii ëpp ci ñoom seen objectif c'est pour que réew mi dox mm-hmm. réew mi nag pour mu dox ñaar ñoo koy doxal Mm-hmm. il y a des gens qui ont choisi de faire partie de l'appareil d'État mm-hmm. de faire partie du parti politique ou bien de faire partie du gouvernement pour faire avancer le pays ñeneen ñi tamit ils ont choisi effectivement nekk ci beneen pàcc bi pour di wax buur li li ñu ànd ak buur sañ ta wax buur parce que buur dafa am ñuy ànd ak moom mm-hmm. naan ko buur réew mi ñëpp nee nañu yowa mhm. di ko tëggal di ko feccal on se souvient de cette anecdote mhm. bi du Diouf di wax ni moom au Sénégal musul xam ni ñu ngi jaay mbuusu sunguf meew juróom juróomi dërëm mhm. musul xalaat ni ñu ngi jaay mbuusu kafe juróomi dërëm amul woon information boobu dans un pays sérieux pour man nit ñi dañu war a am information yooyu parce que aussi ba pare ki jiite réew mi am grandeur xam ne li kii di wax li Babacar wax léegi Babacar Justin li mu wax léegi. Mm-hmm. une démocratie on ne l'étouffe pas. Mm-hmm. non une des voix on on n'étouffe pas une colère. Mm-hmm. parce que si on étouffe la colère nit ñi dañuy continuer étouffer une colère ne résout pas le problème. empêcher aux gens de manifester pacifiquement. pour ñu taxaw yuuxu li leen naxañ dama lay jox exemple bu ndaw. li am keroog Capitole aux États-Unis mhm. les gens disent que les États-Unis dañu reculer non li am Capitole c'est pas un recul démocratique. Mhm. ça montre la grandeur des États-Unis par rapport à la démocratie. Mhm. pourquoi. parce que li am Capitole bu fekkoon Sénégal la am bain de sang lay mujje. ça on va tirer sur des populations. on va tirer sur les manifestations. on va se retrouver avec des milliers et des milliers de morts mais les gens se sont calmement après état bu responsable dafay jël ay disposition am mhm. yu mat pour que effectivement ne xam ne lii alerte la buñ ko seetaanee mën na jéggi dayoo nañu defaraat suñ taxawaay donc ki ñu jiite war na gën a mën a am mhm. taxawaay boo xamante ne dafay déglu parce que en fait il ne doit pas simplement écouter ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom il doit aussi être capable d'écouter ñi nga xamante ne ñoo farul ak ñoom jox leen nopp bu baax a baax parce que bëri na ci ñuy wax du ñuy wax ñëpp ñooy wax dëgg ah. je ne défends pas mhm. parce que y a c'est pas toutes les personnes qui crient dans mhm. les médias qui disent la vérité également mhm. il y des gens qui s'opposent ou bien qui parlent par populisme. Mm -hmm. Mais il y a également des gens qui parlent par connaissance de leur sujet parce que parce que ils maîtrisent li ñuy wax xam nañ ko donc ñooñu nañ leen di bàyyi. parce que ci loolu mu wax mhm. nit ñi wax. parce que li ñuy wax xam nañ ko. Mhm. man foofu laa bëgg a duggee ak moom ci benn ci ci benn mbir bu fekkente ne sujet bi euh, pare nga ci. foofu laa bëgg a dugg ak moom ci benn mbir parce que da nga am na ñoo xam ne dañuy wax parce que dañ bëgg a wax wala dañ bëg a dañ bëgg a siiw mais am na ñoo xam ne li ñuy wax dañ ko xam alors. yow dégg nañ la récemment ngay wax ci mbiru euh, policier bi nga xamante ni moom la ñu ràjjee mais ni nga ci waxee daanaka da nga da nga da nga da nga attaqué euh, ki nga xam ne moom mooy njiitu gëm sa bopp parce que moom dafa jël waa mais ni nga waxee yëkkati nga ay kàddu yoo xam ne wane nga ne moom ñoom am na jafe-jafe war a fay ay salaire fay ko muy jël kii est-ce que loolu ba nga koy wax yow da nga ci am ay certitude ba tax nga wax ko. xam nga ñun bu ñuy wax on parle souvent sur information yu nekk suñu loxo mhm. parce que effectivement c'était un sujet pour man mhm. d'abord fii nit bu nekk ci réew mi fii mhm. nit ñi am nañu mun nañ wax ci yow surtout boo nee yow nit nga boo xamante ne ëllëg bëgg nga yor réew mi jiite nga ay am nga parti walla yor nga tel la personne en tant que telle ne nous intéresse pas parce que du nit ki waxuñu pour nit ki pour détruire la personne wala pour quoi que ce pour pour leneen ak leneen mhm. il y eu nag des interprétations différentes interprétation yi si am nag man awma ci euh, benn problème parce que ni ma amee sañ-sañu wax ci benn sujet mhm. noonu la nit ñi aussi amee sañ-sañu wax mhm. ci li nga xamante ne loolu laa wax mais dans le respect Mhm. dans dans les règles de l'art mhm. donc du ma dugg ci diw lii la wax walla diw lee la wax mhm. man euh, Fara Diassé euh, kaawam fii la nekk Fara Diassé bi affaire bi bien bien avant ay ay ay weer ci ginnaaw jege na ma poser ma ay question wax ma situation am et cetera et cetera xëy na sax am na ñu fa nekkoon ñu nekkoon fii jóge fii dem foofu ñëwaat fii ñooñu également ils m'ont dit ñun ni ñu nekkee fee gënaluñu gënaluñu ni ñu nekkee fee gënaluñu ni ñu nekkee fee gënaluñu ni ñu nekkee woon fii moo ñu gënal ni ñu nekkee fee mhm. ñooñu aussi ne ne serait que par ce mouvement là par l'analyse de ce mouvement mhm. am na ku nekkoon fii si kër bi jóge na fi mhm. dem na fee jógewaat fa ñëw na fii loolu am na fi loolu am na benn nit moo fi am man. maa jóge fii dem seen TV jugee Sen TV dem 7TV ñibbisiwaat ci kër gi te maag yow waxuñ ci mbir mi. tukki nga fu ne non la yow. waaw non dañuy leeral sax dama damay xalaat kan la war a doon ci kër gi. parce que comme dañuy waxtaan. dama bëgg mbir mi leer. leer nañ ni. ah parce que li mu wax nii li mu wax nii il faut que mu leer kan la. mais je veux waaw xam nga ay nit. Uh-huh. liggéey nañ fa même bu dul par rapport ak fii. waaw nit liggéey nañ fa. waaw génn fa. Uh-huh. niñ niñ fa génnee neexule leen. Uh-huh. niñ fa génnee ñu wax ni effectivement ñoom am nañu problème ak kër gi si on revient sur ce que j'ai di j'ai uh-huh. tout simplement dit. dimbale nit baax na mais booy dimbale nit na fekk wàccoo nga effectivement ak ñi nga xamante ne. ñi ngay ndool yow reproché wuñu la dara mm-hmm. je ne maasuma nuun gi ah j'ai pas di qu'il mm-hmm. a des problèmes avec tous ses employés donc j'ai pas voulu citer le nom de après sax Fara Diassé nit ñee ko tudd ak ñeneen ak ñeneen commentaires yi ci topp yëpp nit ñee ko wax ok ok mais man li ma ci wax rek mooy simplement mm-hmm. je n'ai pas été euh, li ma ci wax mooy effectivement nit booy def booy poser yenn actes yi dafa war a tàmbale ci yow danga ko war a tàmbale ci bopp ci sa bopp par dafa mel ne man je suis parti sur un simple truc je donne un CDI à un policier radié mm -hmm. la question que je pose moi mm est-ce que ñi nekk foofu ñëpp am nañ CDI balaa ngay jëli beneen nit te mérité ko waaw balaa ngay jëli yeneen nit yoo xamante ne sous le coup de l'émotion di leen defal yi fekk am na nañu yàgg ci kër gi defaloo leen CDI loolu c'est sujet à réflexion donc après nag nit ñi jël nañu wax ji yóbbu ko feneen ak feneen dégg naa ci sax et très très déçu mhm. li am yëpp ci commentaire yi dara dara mettiwu ma si mhm. la seule chose bu ma ci metti mooy j'ai entendu benn kilifa mag la mhm. mag la woote mhm. ne malal yoonu murit lay xeex et je n'ai pas vu la relation mhm. ak loolu quoi je n'ai pas kenn dégguma ma wax waxu murit kenn dégguma ma a waxu tijaan. Mhm. c'est-à-dire comment les gens détournent profitent d'une situation pour détourner. ok li nit ñi débat bi dañu ko passionné quoi. c'est-à-dire nga passionné débat bi alors que moi j'ai pour ñun suñu rôle c'est de susciter des débats. Mhm. on peut ñun mën nañu wax juuma. Mhm. ñun mën nañu wax juum. mais suñu rôle c'est de poser des questions pour susciter des débats. ñi ciy wax aussi. souvent dañuy jël affaire bi wax ko ak ay passion dégg naa nit wax si ba wax si bàyyuma la lu mu fi def waaw parce que même ces, ces mhm. employés c'est les employés de de de Bougane qui t'ont vraiment attaqué mhm. je peux prendre l'exemple de Cheikh Sarr qui n'a pas été tendre avec toi non je n'ai pas de problème avec je ne sincèrement je ne voudrais pas commenter sur li ma li ma li ma wax mhm. moom parce que euh, bëgguma si wax wax dëgg fa yàlla moom j'ai compris parce que mhm. il est te suba am na mhm. suba am na mhm. man j'ai dit booy def lu mel noonu balaa nga koy def na fekk wàccoo nga ak ñi ngay liggéeyandool ñi nga xamante ne ñoom nga seqal liggéey si sa biir kër maintenant sur lafaire Fara Diassé moom ci boppam Bougane il m'a donné des explications. ok jox na ma ay explications la lendemain parce que la lendemain on s'est parlé. ok man ak Bougane. Mhm. du ñu ñaari nit yuy réeroo ah. Mhm. ah bon déedéet. ma benn problème personnel man ak Bougane. ok. puis bu ñuy jël affaire bi mel ni man je suis là pour représenter Youssou Ndour eux ils sont pour représenter Bougane. Mm c'est-à-dire. ni affaire bi wëlbatikoo quoi. ok et le jour de l'émission on n'a pas vu des gens de TFM man maa ko wax et les gens n'ont même pas voulu. comment dugg ci dugg ci débat bi même ku nekk na nga waxal na nga wax ak sa aqulay taala. ñi hmm. nekkoon TFM ils n'ont pas voulu même sori ci affaire bi. Hmm. par mesure de prudence parce que ils savaient que c'était assez sensible. Hmm. léegi pourquoi est-ce que tu n'as pas jugé nécessaire de faire comme eux. être prudent et être précis si say propos. non parce que tey non attends tey. boo jugoon par exemple wax dara ci exemple laa lay jox fii tey employé yëpp ay révolté contre toi. bu ma peut-être benn parce que ci ni nga ko waxee la. soit tu n'as pas été précis soit tu n'as pas donné les détails parce que yow li nga wax. non attends li nga wax dafa mel ni comme sii que ne da nga am benn preuve. non au moins maanaam maanaam yow da man li ma jàpp yow dëgër fit nga waxe non non non man damane ne. Mhm. wax c'est clair dama jël ku ñu raje baax na mais balaa ngay jël ku ñu raje na fekk wàccoo nga ak ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyandool et la question qui me revient tout de suite à la tête. Mhm. ñi koy commenter. mënoon nañ ne effectivement comme que waa ji dañ ko jël avec un CDI. Mm -hmm. est-ce qu'on peut loolu c'est le travail de la presse. Mm -hmm. pour ça suscite quoi ça suscite quoi mooy suñu presse war na poser la question sur la situation des employés ci seeni bërëbu liggéeyukaay. tout à mm-hmm. est-ce que am nañu CDI est-ce que am nañu xawma naka de santé est-ce que mm-hmm. respecté nañ tel est-ce que respecté nañu tel dañu susciter juste benn ak toujours bu nit ñi di wax dafa mel ni li ba Boubacar Seye wax mm-hmm. ci affaire Union européenne daf ko wax pour inviter nos États à la transparence pour lutter contre la corruption man su ma ko waxee ce n'est pas pour dire que tel nit tu n'es pas bien dama ne loolu mu son geste est bon mhm. mais booy def yu mel noonu nafek yow wàccoo nga ak li nga xamante ne moom nga séq ak say liggéeykat d'accord c'est une question que j'ai posée ah na fekk euh, d'accord bi mu koy wax il faudrait préciser que euh, chroniqueur la boobu fa ca émission Jakaarlo et que mhm. le commentaire également en tout cas il est libre ñun ñun chez nous jargon journalistique ça n'engage que lui et uh-huh. c'est un commentaire qu'il avait fait dinañ ci dikkaat parce que ki nga xam ne nii moom mooy Babacar Justin Maïga également c'est un employé au groupe des médias ñu seetlu na bi tamit également euh, bu ñu waxee des médias rek wala Bougane def da Bougane Gueye dañuy def dara rek employé ñu jóg bu fekkente ne lu bon voilà bu fekkente ne lu bon lañ ko accuser ngeen ñi def vidéo di wax seen état ñoom ils sont bien la bas su fekkente ne safaan ba lañ ko wax dañuy jóg di ko défendre pourquoi est-ce que journaliste bi walla animateur bi warul yem dong ci liggéeyam ak ci contact ba ñu dugg ci ay détails également oui bon ay mhm. euh, di nga ma may nag euh, ma euh, nga dem tontu Fou Malade vas-y ah, xam nga Fou Malade tam amoon jot tontu ko mhm. si lu mu wax je suis un je suis un travailleur là-bas c'est normal. Mm-hmm. et jàpp naa ne tam j'ai la qualité du locuteur pour parler. Mm-hmm. parce que Malal wax na ko sànq bañ ko laajee question daf ne moom amul certitude. Mm-hmm. yaa ngi wax na tam ne journaliste yi war nañ dem gëstu ji dem xool. li xew yaakaar naa ne tamit tey moom war ni mu wax ne du réeroog Bougane waroon na moom tamit jël téléphone am woo ko. laaj ko sur cette fait pourquoi mu mën ko laaj ci affaire de Fara Diassé te nanguwu ko laaj ci affaire de policier bi mhm. bi mu jël donc je pense que par rapport à ça c'est un peu paradoxal par rapport à sa démarche mu comprenez parce que euh, tey jii nii nii nii moom mu ngi wax waxu liberté de ton nit ki dafay am liberté am liberté de am la demee pour wax xalaatam mhm. mais tey jàpp naa ne tamit muy Cheikh Sarr muy ñeneen ñu nekk Sen TV seen liberté de ton lañ am ñoom tamit pour exprimer wu si li nga xam ne loolu lañ loolu lañ loolu lañ si loolu lañ gis. Mhm. parce que tamit tamit balaa nga naan naam ne fa. mais tontante bi ak ñagasante kàddu bi est-ce que jaroon na ko également. non attends ay waajur polémique la boo xam ne ça naît de l'ignorance vous savez pourquoi. waaw euh, tey il faut ñu xool lu ñu weesu. Euh, euh, fu ma laaj tey 2013 son grand frère fut directeur de la RTS. Mhm. dafa dàq. Abdoulaye mbay Pekh defal ko rupture de contrat. Mhm. dàq ko sous aucun fondement. Mhm. Bougane jël ko. waaw boo boo attends dañu wax xaaral dañu non non attends. dañu wax dama la bëggoon jox benn question nga continuer waa mais xam nga li nga bëgg a comparer. non attends wala attends attends buñ ko bi tey suñ ko tegee ci liberté. Mhm. attends suñ ko tegee ci liberté ak égalité. ok xam nga policier bi tey liberté la égalité la. Mhm. parce que citoyen la si biir dëkk bi. Mhm. Aïcha yaa ngi di comprendre. tey kële tamit liberté égalité lañ ko war a tegee. xam nga mooy problème bi tey. Mhm. nit ki tey waxuma ne nii liste la waxuma ne euh, du buñ na ko weer bi duna weer baa ngi nii nit ki tey munoo jàngat si benn fee bu mu def rek nga ne tey fee bu mu def nii fee bu bon la en plus des médias jëlul policier bi lu gaa yi xamul. groupe Boyka Corporation moo ko jël groupe Boyka Corporation ak D-Media bokkul. moo tax waa D-Media waroon cee noppi. c'est pas la même mm-hmm. chose. Mm-hmm. mais tey mais mais mais xam nga mm-hmm. xam nga tey pourquoi c'est un peu contradictoire lu tax waa D-Media war war war li si noppi pour quelle raison tey bu ñu attaqué woon Mamadou bi day da siy noppi. bu ñu attaqué woon Sidi Lamine da nga siy noppi. da ngay liggéey si kër non attends. nekk naa si kër gi 5 ans. non attends Sidi sama nekku ci. moom mën na dëjëm. waaw mais je vous dis une chose. employé rek laa Cheikh votre employeur. lu ñu ko wax lu ñu ko wax sama yoon nekku waaw vous lui devez. subordination lorsque ça concerne votre entreprise. non non non non on est des non xaaral on est des employés. Cheikh Niass bu ko fi waxaloon toll ni kete bi du ma ci wax. xaaral xaaral ñu ñëw baax Babacar Babacar baal ñu ñëw Babacar parce que man tax non amul tax loolu c'est dangereux. non non c'est dangereux très dangereux. Babacar bàyyi ma ñëw ma continuer mais je ne peux pas parler à la compagnie. waaw dama lay bàyyi nga continuer. non non mais loolu Babacar doo ma bàyyi ma ma jox la ma continuer. Ah, yaa ñu posé question ñun on est non suñuy journaliste moo ci nekk. leneen lu xamante ne nii jege na ay Cheikh Niass. wala saa xam ne wala nekku ci vraiment waaw mais léegi yow tu penses que Bougane foofu noonu pour nafsu bakkanam wala lu ko neex. non attends da la faa bàyyi parce que liggéey di ko def. waaw attends attends a besoin de toi moo tax mu jël la bàyyi ma ñëw bàyyi ma ñëw suñ ko attaqué ci dara yow Babacar su fekkee da taxaw ka ko attaque nga koy wax ba wax yi jéggi dayoo est-ce que soo gënee ëllëg mën nga faa jógee. attends bi tey bi tey bi tey waa mel bi tey xam nga man ko bàyyi waaw man c'est vrai man s'il wax ci xam nga tamit tey waxtaan il faut que ñuy déglu ñuy déglu d'accord Babacar man waxuma. mais yaa ñu tudd de. dafa yaa non attends <laughs> non attends non non je n'ai pas peur de la confrontation. ok waaw journaliste. voilà euh, xam nga tey wax ngeen sànq lu am solo. Uh-huh. ngeen ne les faits sont sacrés. Mm-hmm. mais les commentaires sont. libres sont libres. d'accord ah ça aussi par rapport à ça nangul ngeen ko malal par rapport à ces interprétations. parce que nee wax na ak diw wax ak diw wax ak diw. man waxuma ne dama ñëw tey. pour defendre nangam ak sangam. Mm-hmm. mais am naa sañ-sañu tey. à partir de à partir de man tamit moom si lu mu waxee ak man mm-hmm. fi ma nekk. ma mm-hmm. mun si wax apporter ci. d'accord xam nga tey dañ ne policier bi tey dañ ne c'est récurité par des médias moom ni mu waxee tey Bougane. man noonu wax naa kook Bougane. policier bi des médias recruté wu ko. booy Corporation. Mm-hmm. moo ko mais mais Babacar doo yaa ngi comprendre Babacar mais attends Babacar Babacar s'il te plaît mais s'il te plaît dafa am lu mu lay jox rek nga continuer bàyyi ko mu jox la nga continuer s'il te xëy na da laaj xëy na da laaj vas-y non vas-y vas-y y non yaa yaa ngi comprendre mm-hmm. Mm-hmm. tey jii nii parce que tamit tey gi nii nii nii Mamadou bi tey euh, li nga question bi nga soulever tey dafa am solo xam nga tey Euh, Bougane l'homme politique. Mm-hmm. ak Bougane de des médias. Mm-hmm. il faut que savoir faire la distinction des choses. distinction nag mënut a am. non parce que am na ay problème. mënut a am y' a des activités de Sen qui n'engagent pas Bougane. Mm-hmm. y' a activités Sen yoo xam ne sans lui engage pas. mais toute activité de Bougane. engage des médias. ça ah bu amee ensemble mun na am tey sous ensemble. tey dañuy waxtaan xam nga moom nee la sànq. yow bi tu t'es permis nga seetal sa der. waaw parce que yaa ngi toog si télé bi. da nga ne yow da nga yaa fa jógee. yaa fa jógee maa la wax loolu dem ñëwaat. parce que bu ma toogee fi ñu may seetaan day mel ah, man la damaa foogoon ne yow la man maa wax damaa foogoon ne yow la non d'accord man moom su ma waxee ci moom benn Aïcha yaa ngi comprendre parce que moom dong fii naaw di cëppi cëppi tey tey am na at muy dem fii jóge fii dem fii Aïcha tey am na ñoo xamante ne tey ah, ah. am na ñoo xam parce que waxtaan rek dañuy waxtaan ñun ñëpp dëgg la tey am na ñoo xamante ne tey jóge nañ fii mm-hmm. si ay anam teewul dañoo dem fee. Mhm. nekk fa. Mhm. Mhm. c'est-à-dire que tey jii nii nekkul ne par exemple da ngay xool benn côté tey bu nit ki def xam nga tey euh, Bougane jël na policier bi rek ñëpp commencé di critiquer. def na fi campagne euh, def na fi dem na fi xooli baykat yi. affaire de Fallou Sène réagir na fi. dem na fi xool nappkat yi. oui dékku ay gendarme. non non dékku ay lacrymogène taxaw xool seen situation tout à yaa ngi wax affaire de pêche. artisanale non non déglu ma ah, Babacar Babacar est-ce que ne serait-ce que le fait qu'il ait un média et qu'il fasse travailler des gens c'est assez important c'est mhm. très important même mm -hmm. loolu le sujet n'est pas là xam nga sànq bi ngay wax yaa ngi évoqué ne oui le directeur de la RTS dàq na diw mhm. li indi coow li du affaire u RTS li indi coow li mooy ci jàkkaarloo dañuy waxtaanee gis-gis. Mhm. ci gis-gis affaire policier radié bi ñëw. Mhm. le recrutement du policier radié Bougane daf ci dem daf ci def at mhm. presse bi bind ko. bind ko donc ñun bu ñuy commenter gis-gis on commente la gis-gis en fonction de tout. de li xew autour de cette information. ci biir policier radié bi il y a eu des qui ont donné 10 millions ñi maye ay terrain Bougane jël ko comme un employé avec CDI. pare mm-hmm. fay ko 3 mois yu mu dul liggéey. fay ko 3 mois yu mu dul liggéey. Mm-hmm. sànq bi may wax ni man ak déggante nañu on ne s'est pas parlé avant on s'est parlé le lendemain parce qu'il n'a pas il m'a parlé en gentleman ah ne ma mm-hmm. malal ni ma déggee affaire yi ni ma ko gisee vraiment neexuma yow yaa tax sax effectivement. man ak yow dañ ko seq et effectivement tu as raison dañ ko seq et je lui ai dû textuellement peut-être j'aurais du bien avant mm-hmm. bien avant j'aurais du bien mm-hmm. avant mm-hmm. euh, affaire bi ma ma woo la ma téléphone pour pour pour vérifier mais li information bi si Farajaase daw yëpp waa des médias kenn génnu ci wax ni li se wax amul. Hmm. si. non non non si si am na. si am na ñu def seen vidéo compile bu 3 minutes. wala bu 7 minutes. d'accord di ci wax ne que li mu def mais même bu amee. loolu même ça a été décrié. loolu c'est la parole de Farajaase contre, contre leur parole. Mhm. Hmm. Hmm. c'est aussi simple que ça. c'est ça xam léegi nag ñun on fait des chroniques. Mhm. chronique la ñuy def bu ñuy def chronique. on essaie de susciter le débat et puis de de bonne foi bu ñu wax ce n'est pas contre contre une personne on ne le dit pas contre une personne on le dit effectivement pour régler un certain nombre de choses li ma posé comme question mhm. gisuma lu ci aay parce que gisuma lu ci aay dama ne mais c'est une affirmation madame affirmation l'a suivi mais même bu fekkee ja même mooy li wolof njaay di wax balaa ngaa jaax laax jaay da ngay laax lekk dafa mel ne ma yor sama kër tey mm-hmm. génn di jox ñoom mbay njaay depense wala di fayal doomu Moussa Ngom école fekk man sama biir kër am na kenn ci samay doom yoo xamante ne ay fourniture am dafa manqué walla ñu ngi koy topp ay weeru école. mais malal aussi loolu lan la lay déranger du moment que ñoom ñi fa nekk bëgg nañ ko ba toogee ci noonu. non non dama ne dama ne. dama ne tamit yaa ngi défendre ñoo xam ne bëgguñu toog ci seen doom. non déedéet non dama ne bu leen neexoon. yow souvent am loo xamante ne nit di ko dund fenn. Mm-hmm. mënu ko wax ci kaw. ñeneen a koy wax mmh. lan mooy njëriñu leader d'opinion lan mooy njëriñu journaliste lan mooy njëriñu chroniqueur lan mooy njëriñu artiste mmh. c'est identifier c'est partir de benn affaire boo xamante ne xëy na mmh. ñi ki mu dal mënu ko amplifier ñaata nit ñooy toog man wooma ma téléphone ne ma malal ñun de lii mooy suñu problème est-ce que mën nga ñu ko waxal ci émission bi est-ce que loolu Victor Hugo doon wax quand je vous parle de moi je parle de vous. c'est c'est ça. Hmm. c'est-à-dire. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga. mais mais mais xam nga mooy li nga wax ñun lépp lu am mbay peex boobu et puis je comprends quand je fais la relation mbay peex boobu nga tudd ndeket donc moo tax mu woote ci télé bi ne malal parce que bu ku tol ni mbay peex bu toogee ne malal. du nit ku baax yoonu murit lay xeex patati patta si demain je retrouve agressé et si jamais je me retrouve tué tout à fait ci benn wax moom boo wax xam ni wax na ko rajo ci e passion wu boppam ak si coobaray boppam. Mm-hmm. et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. xëy na xëy na dafa juum. ku dul juum amul. rafetul c'est waaw non non c'est pas loolu ci loolu yëpp li am yëpp. naqariwul ah, waaw xam nga des nit xam nga des nit damay ñëw. maanaam maanaam des nit xam nga bi muy wax peut après ça me permet de faire la relation. défendre ko de xam nga lu ko. parce que moom. loolu du taxawaayam ci réew mi. mais très bien. moo tax man la défendre ma ko parce que moom mooy koo xam ne ci réew mi dafa war a ñaw. xam nga gis ko yàq defar ko peut-être dafa wax nag. ci ci coup de la ko waxee peut-être. man man man tey malal bu waxee ne tey. waaw insécurité am xaj na ci. man tey man tey d'accord ma tey par exemple. si nit ku ñuy brutaliser. ok et je ne veux pas par rapport ak samay propos sànq. ok yéenewuma ñu jiiñ ko tam. lu mu deful. mais débat bi aussi buñ ko tourné ci côté ci côté ay ay tarixa yooyu. am solo am solo rek wàllu parce tamit agressé nañ fi tamit ak trop bon également agressé nañ fi si ay. man genn wàllu montre yi may takk. sëñ Abdou Karim moo koy jox. macha allah. genn wàllu mbaxane yi may sol di ko mm-hmm. defee émission sëñ bi moo koy jële mm-hmm. ci armoire am jox ma ko mm-hmm. am naa ay yére yu ma yor sama armoire sëñ bi moo ma koy jox donc en fait du ma nit buy bàkkoo wala tiitaroo wala nangam woy man man sëñ bi sax sëñ fuu may woowee <laughs> ndeysaan est-ce <laughs> uh-huh. proximité bi ma am ak moom uh-huh. jaaxal na doomu aadama yu bëree bëri et je pense que c'est pas des gens du ñu ay nit yoo xamante ne dañuy dañuy am cofeel si nit mm-hmm. nii rek am ci moom cofeel nii mm-hmm, mm-hmm. dañu am une relation assez particulier muy koo xamante ne ma sopp ko fonk ko depuis 2012 maa ngi dem këram màggal bu jotee 2012 man këram laay màggale falaay defee kas rajab fa defee lépp donc am na yoo xamante ne bu ko nit di wax te am naa ay relation ak ay baay faal ay murit ak ay am ay xarit yoo xamante ne li ñu seq ci ay teraanga seq ci liñ seq. Mhm. liñ seq en fait lu sori la quoi donc am na yoo xamante ne nit war na di ko rus a évoquer. Mhm. parce que ñun aussi ah ñun aussi am na loo xamante ne du ñu nangu mu ñuy bett. am na loo xamante ne du ñu nangu mu ñuy bett ci réew mi lañu dëkk. Mhm. et très vicieux et c'est à la limite très ignoble. de jouer sur des fibres comme ça. Mhm. di jouer ci ay fibres yoo xamante ne da ngay laal sensibilité nit ñi ba dara xew après nga commencé taxaw sur un simple truc non man et cetera cetera pour mhm. man. Mhm. yu mel nooñu nañ ko moytu. maintenant les autres qui ont pris leur temps jël seeni ligne ubbi rajo bi nana nii nana naa et cetera ce ne sont pas mes interlocuteurs. ñooñu hmm. duñu samay interlocuteur l'interlocuteur concerné hmm. ki nga xamante ne moom laa wax jëmale affaire bi si moom hmm. ñu on a parlé au téléphone et j'étais j'étais très gêné on a man moom bi ñuy wax la lendemain on a parlé ah mu ne même malal nu affaire bi ma dégg ñu wax ci on a épuisé le on a épuisé le sujet mm-hmm. te du benn yoon du ñaari yoon la ñuy gisee wala la ñuy déggante ci li nga xamante ne en fait sa ça concerne effectivement le pays donc nit ñi mm-hmm. war nañ di moytu même bi bi débordement yi amee si rajo yi mm-hmm. comme que ñeen duñu samay interlocuteur moom woo naa ko ne ko li ma dégg diw ak diw wax rafetul mu ne ma noo man sax du ma déglu rajo bi est-ce que tu comprends. Mhm. après mu jàll ma jàll. loolu dóor la da koy déglu mais mais mais mais. non da koy déglu loolu dóor la da koy déglu. mais bi tey euh, ki côté Bougane xam ne dara jaar ci rajo ba télé te xamu. naa la ko préciser. Ah, ah. te dama bëgg mu am solo. Ah, xam nga sànq euh, expliqué nañ ne tey nit mu ngi fii ëllëg mun na nekk fële. xam nga tey euh, dëgg la nit ku nekk war nga am vision prospective ci sa àdduna mhm. parce que tey même même tey euh, boo bu demee ba nga xamante ne immigration clandestine mu ngi am sax parce que nit ñi amuñu rêve ñu mhm. nekk mais man jàpp euh, jàpp naa ne loolu tam dafay tax tey booy soor tey par exemple ne ëllëg mun naa ñëw Walfadjri ma liggéey fi mhm. wala ëllëg mun naa ñëw TFM ma liggéey fa ba jaral na ma tey su ma gisee dëgg du ma ko wax loolu noonu baaxul si dëkk baaxul sax ci jeune man foofu laa tënkee ci li ma wax. maanaam tey mais dëgg nañ wax te bañ a. bañ sori saaga wala bañ a sori. d'accord naa parce que bi tey xam la ma xam dafa am loo xam ne man dama koy dund. Mhm. mooy hier pas de mais demain aussi pas de peur. Mm. Mhm. mais tamit damay ñaan toujours ma wax li nga xamante ne tey dinaa am fu ma ko teg. ok xam nga malal tey dafa wax euh, ne euh, euh, diw wax na diw wax na diw wax na. ba mu mhm. jaral ko moom mu caable woo téléphone. Mhm. tout justement woo Bougane pour wax ko ne ko. Mhm. tey diw ak diw ñu ngi wax ci rajo bi lu xew. ba euh, bi tey nee na ay dóor la sa waaye mu ngi déglu. xam naa day mhm. sànni xeet. saa si saa si ba mu jaral ko loolu. dama jàpp na tey Bougane waayam la bu la dee déglu rajo bi léegi nag waaw léegi nag lu tax léegi nag lu tax léegi malal. mënul nangul tey benn Cheikh Sarr bu taxaw wax xalaatam. non bañuma. waaw non non c'est-à-dire dafa ne daf ne il est il est il est allé trop loin. non non loolu la wax sax dafa dem ba dudd dudd ay waajur. mais Babacar Babacar moom loolu lay wax. Babacar xam nga moi man kenn musuma dégg télé wala rajo nit ñi mun nañ fuyee samay émission de fond en comble yi ma mus a def yëpp. Mhm. bi ma nekkee rab ba tey di rab ba tey jàpp benn nit di ko xas di tudd ndeyam. di tudd baayam di tudd waasoom di wax ay affaires yoo xamante ne nit bu nite du ko def j'ai jamais fait ça mhm. parce que je trouve ça petit ah. dara jàkkaar loolaa musa am ak Farba Senghor te bu ko def loon du ko def mu ne yéen tekkiwu leen dara mhm. yéen waa Y'en ba birima bi may xëccool biir biir télé ak rajo il fait partie de mes meilleurs amis mhm. ci li nit ñi xamul parce que effectivement am na foo xamante ne duñ fa egg am na foo xamante ne lu sama tempérament tàng-tàng ruus naa fa egg ak nit mhm. parce que nit aussi da ngay créer say bopp ay limites mhm. c'est-à-dire bu ñuy bu may wax dara ma jëmale ko effectivement ci parce que nous on moi j'ai commenté parce que oui trouver un emploi pour quelqu'un c'est bien CDI encore c'est mieux mhm. lu baax la mhm. mais am naa droit ne lii ak lii xew na fi est-ce que du ñu bu ñu jiitoo woon loolu du gën mhm. lii mais xëy na xëy na effectivement ku ci nekk xëy na am na ko am na ñoo xamante ne xëy na de la de leur profession am nañu yeneeni am na am na leneen ak leneen ak leneen du ma dugg ci ay détails hmm. mais dafa dafa am loo xamante ne bul bu nit bu la bo bu fekkee yow nit ki boo leen wee doog ko wax hmm. war nga ko am na sax même bu dul sax jàkkaarloo ak nit ki am na lu nit war a jomb parce que ëllëg dafa am récemment récemment récemment hmm. dans les réseaux sociaux am na ay ah, vocal ñu mm-hmm. circuler mm-hmm. concernant sa personne mm-hmm. moom Cheikh Sarr il y a des vocales qui man personnellement bi ma déggee vocal yooyu j'avais j'avais mal je voulais pas que ça soit lui ok dam bañ ba bind dam bañ ba bind ci way way bu moom moo ko tax ah. dam bañ ba temps yi la yaagul dara maag ñagas on est resté ñu ne ñagas mais affaire wu ay whatsapp yi war nañ si binda ah. parce que léegi nit ñi ku jekku sa morom rek wax ko musiba ci wax ko musiba quoi parce que tu as une opportunité tu sa photo mhm. bu xaw a doy waar wala tu as son image wala tu as tel mhm. et cetera mais fan la nit ñi jëm nit ki dafay nekk ci whatsapp ba cin ndi xam nit ki dafay nekk ci lii ba tel ba tel il faut que les gens di éviter yenn yi c'est-à-dire bu ñuy wax xam nga boo toogee ci télé parce que sous le show ah. nit ñi di la woo ah. wéy ngay kontaan affaire bi di neex. mais da wax loo xamante ne danga koy rëccu après. d' accord d' accord Malal. Euh, man man man fi may ñëw rek. Ah. fi may ñëw mooy euh, Cheikh Sarr ci boppam vraiment moom aussi nit ku nit ku baax la nit ku baax la nit yaram xëy na euh, si moom it ci ci ci mer la de maanaam daf ko lu koy rëcc laa koy jàppee quoi parce que moom it ku baax la je dis à Cheikh Sarr que euh, euh, mu mu mu bàyyi loolu mu sedd parce que yow ak Cheikh Sarr vous êtes des jeunes ah ëllëg mën ngeen a mën ngeen sax bokk liggéey boo xam ne loolu ko oh. donc loolu jaru ko ci quoi ñu ñu xool mu éviter yooyu c'est pas bien <laughs> ensuite pour dire que moom Cheikh Sarr ci boppam je l'ai appelé pour euh, cette émission woo naa ko ne ko carrément damay invité malal émission parce que dañuy waxtaanee lii te yow am nga loo ci wax xam nga pour lu tax ma def loolu parce que bugguma nga toog fi wax mu ne ah ñun kat dañ laa oo nga wax ko lu ko neex alhamdulilah sax yow waxoo ko lenn wax boo xam ne wax ju ñaaw la moom itam na na na na na jéem a dindi loolu alors pour pour revenir ci ci ci sujet bi tuuti hmm. euh, kaawu Farajaase laay wax pour revenir ci sujet bi ah franchement hmm. man je peux mu mbugaat mun nañ ko wax lu nekk hmm. ba mu des fayu la tardé na sa salaire j'étais là-bas pendant deux ans loolu moom mun naa ko ko seede kaaw Farajaase man waxtaan naa ci ak Bougane alors xaw ma woon ne sax bés dina ñëw ba toog def ci émission mais wax nañ ci téléphone maak moom mm. il m'a expliqué des choses am na yoo xam ne boo ko déggee da nga da nga naan ah kii kat li mu wax nii nuñ ko dindi parce que même nit ki bu amee CDI te liggéeyul mérité wul salaire moom moo ko wax. Mm. fara liggéey na war a liggéeyul moom xam na parce que moom mooy patron am. loolu la la wax alors beneen bi mooy lenn mm. rek laa xam ne moom la ma fara wax nee na. matériel bi nga xam ne ñi ngi ko koy laaj fara dafa ne ba ñu koo joxe mais comme biñ ko koy jox dañoo bindoon mu signé ñu jox ko ko nañu ñëw ñu bindaat mu signé wane ne joxe na ko parce que nee na li muy ragal mooy ñu joxe ko noonu sans bind mm. su ko defee ëllëg ñu ne matériel bi manqué ne di wala def ne di def ne di kon je pense que même fara ak Bougane pour man amul problème fëlaxoo ak maanaam ñàkk déggoo la mais y a pas de problème yaa ngi y a pas de problème nag nit a ngi foofu di liggéey amul CDI wala fay nañ ko lu ndaw mbugaan dem na jëli koo xam ne police bu ñu ràcce ràjje la moi je dis que bu ma fa nekkoon même aw ma CDI ñu may fay lu ndaw du ma du ma wax xam nga lu tax nag lu mu nangu ñu teg ko ko dagan na noonu naan nga tey man su ma ñëwee ci société nga jiite ko yow tey ma mala taala ma ñëw waxaale ak yow ci contrat bi ñu déggoo ci salaire bi ñu déggoo mais malade Aïcha bu ñëwee même lu ma ko ëpp ëpp xam-xam. mais soo ko fayee lu ëpp li ma fay man du ma taas. mais pourquoi tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi ci loolu. waaw ñëwal li tax mënuma d'accord ak yow am na loo xamante ne. Uh-huh. c'est la presse la société civile. Uh-huh. le porteurs de voix. c'est à eux ñooy yëkkati li nga xamante ne mi ngi ci suuf uh-huh. ñu teg ko ci kaw. pour nit ñi mun ko régler. non man waxuma ñooñu de dama ne mi ko dund. oui jàpp ma ne war nga ko mun a. pour le cas de Fara bi ñu ko yëkkatee bi tey aussi il faudrait se dire que. Mhm. am na des milliers de personnes yoo xam ne ñu ko doon dund seen groupe de presse. oui kaw Fara Diassé moo leen permettre ñu lijjanti seen poste. man je fais partie de la convention de jeunes reporters. c'est-à-dire xam nga tey bu ñu. c'est-à-dire lan moo réglé des fois ñu ne station bi lakk na mhm. lakku benn station mën na permettre nit ñi jël seeni disposition pour que beneen station pour que beneen station dootul lakkat on ne dit pas cest à il faut aussi dire que il y a des travailleurs hein, qui ont été chez Bougane qui ont quitté ah, parce que effectivement ñoom dañ leen ne ils ont quitté parce que on il paraîtrait que mm-hmm. effectivement je reste j'essaie d'être prudent mm-hmm. que effectivement dañ leen a bañal affaire u syndicat loolu man je confirme j'étais là-bas oui ça je confirme oui problème coowal syndicat boobu moom am na fa mbugaan dàq na leen moo xam raison ba tax mu dàq leen loolu moo am na fa j'étais là-bas ku nekk dans ah. un lieu de travail ah. war nga am sañ-sañu taxawal kuréel buy defendre ses droits loolu quelqu'un qui aspire à diriger le pays mhm. quelqu'un qui dirige un média mhm. boo xamante ne dafa nekk entre média ak ñëpp xam nañ ni moo nekk diggante askan wi ak ak li nga xamante ne mooy xew mhm. loolu mooy en fait moom mooy sax tax moom mooy tax moom mooy en fait moom mooy défenseur u askan wi en quelque sort yu mel noonu pour man dafay permettre ñu poser problème yu mel noonu pour que ñi nga xamante ne ñoo ne man ëllëg réew mi bëgg naa ko jiite pour effectivement ñu xam ñu xamal nit ñi ñii ne dañ ñu bëgg a jiite ëllëg wii baax nañu ñu ngi def ay mbir yu baax mais bu ñu góorgóorlu woon ci lii ak lii. ci mhm. lay gën. d' accord d' accord Malal waaw tu may ñëw mhm. ci yow mais même rek ma ma mhm. posé la question bi Malal li mu wax dafa am solo ci cas bi nga xam ne mooy kaawu A bu ñu jël répertorié ko pour mën a jël exemple ci kaaw B ba Z. te loolu dafa am solo man mii di wax ak yow convention de jeunes reporters ci bureau bi laa bokk kaaw Fara Dias mu jógee y' avait des euh, euh, ay reporters yu bëri. profité woon nañ ci occasion bi pour wax seen situation et loolu lu am la du ñu fi toog di ko di léegi nag yow en tant que taskatu xibaar en tant que journaliste mm. est-ce que également genre situation yi waru ci mën a tax ñun ñu jóg tamit mm. combattre tamit li parce que quoi qu'on puisse dire c'est pas nous dans nous maanaam ñun affronté wuñu suñu biir mm-hmm. c'est nous contre les patrons de presse mais pas ñun contre ñun mm. vraiment oui euh, Aïcha euh, wax nga lu am solo mm-hmm. tout à l'heure tey képp koo gis ñaan na yàlla si ou d'ailleurs mhm. situation bu muy liggéeyee mu amélioré ak ku mu nekk euh, convention des jeunes journalistes reporters man bokkoon naa ci sax moment mhm. yi nga xam ne Thierno Dramé que je salue de passage mhm. moo euh, nekkoon sunu Ibrahima Baldé waaw moo nekkoon sunu président même ba ko Pape Ndiaye di yor sax mu nekkoon foofu ak ñoom euh, Khalifa Ababacar Gueye et tout ça quoi man dama jàpp ne tey organisation interne war na mën am au sein même des organes de presse parce que tey man dama jàpp na tey da ngay gis tey des fois y a des conflits internes au sein même parce que parce que qu'on le bi tey des fois am xeex yu métti yu am. Mm-hmm. lu ñu naan le bonheur hurle mais le mal murmure. Mm-hmm. si biir organe de presse yi. Mm-hmm. parce que tey jii nii di nga gis koo xam ne moromam dina def erreur. au lieu que diw ñëw ne ko. fii da nga wala Aïcha sama maquillage ni nga ko defee baaxul sa argumentaire bi ni nga ko waroon defee mhm. mais day def il préfère taxaw xëcc bi tey mhm. ne ko xool ko nu mu argumenté mhm. lu mu def baaxul et que loolu noonu yëpp lu koy war la xam nga mooy lan mooy ñàkk toog waxtaan parce que tey jii nii waroon na am ay média média média daf nu mu war a cest à dafa waroon am médiation benn cellule de médiation ci biir group comme tey jii nii par exemple bi tey soulevé na kaaw Fara Diassé man que ñiy taxaw kaas ne waruñu ko dàq ak ñi taxaw kaas ne war nañ ko dàq yëpp man dama jàpp ne mhm. tey waroon nañu mën a trouver benn consensus mhm. tey problème war na mën a am Walfadjri ñu ne dañuy mise à pied Aïcha bi tey gis Préra mhm. gis ñoom Thiamas gis euh, Sandiogou gis ainsi de wala ñoom euh, Ndeye Fatou ainsi gis leen ñu toog xool naka la ñuy def pour mun a bind par exemple benn communiqué wala benn rapport pour gis hiérarchie waxtaan ak moom ne ko tey Aïcha kat dafa fauté dafa def erreur. Mm. wala soit waroon na ñëw tey ñëwul. Mm. léegi qu'est-ce qu'on va faire ba nga xamante ne du ñu yegg si lii. Mm-hmm. mais bu fekkente ne parce que wax nga ko sànq mag lu mu nangu loolu lañ koy tegoo. Mm-hmm. bu fekkee da nga nangu nekk si marigot de crocodile. Mm-hmm. nangu fa nekk di xeexante. tey jii nii mun nga am problème tey ñëpp seetaan la parce qu'on le veuille ou non convention des jeunes journalistes reporters ñoom tey waroon na ñoo sol seen dàll dem gisi la euh, dem gisi le président directeur général dem gisi mm-hmm. par exemple Bougane mm-hmm. toog waxtaan ak moom ne ko naka la ñuy def tey ba kaawu Fara ñu xool ñu réintégré ko mm-hmm. au lieu ñuy indi ñëw mais à chaque fois boo déggee ñu ne la correct wala convention des jeunes journalistes reporters c'est parce que dañuy fustiger dañuy xaar bañ arrêté la wala ñu xaar bañ dàq la nit ku nekk nag bugul di xaar ba nekk situation de déséquilibre euh, Aïcha SYNPICS moom mooy gën di indigné wu di kii parce que SYNPICS moom moo fi teewal mais Aïcha ci nekk ak sa rôle Aïcha parce que Aïcha parce que xam que s'indigner tey booy gérer benn association que ce soit mu nekk association wala mouvement bu munti doon mhm. il faut ngeen am la capacité d'anticiper les choses parce que loo munti gérer rek da ngay am capacité d'anticiper les choses tey Mamadou bi tey doo soxla ba ñu daax ko nga soog a génne benn communiqué naan fayuñ ko deux mois fayuñ ko un mois. par exemple tey mënoo xaar ba ay Aïcha dem reportage policier brutalisé ko nga soog a fendre benn communiqué wala dara. non loolu SYNPICS la. waaw non convention des journalistes reporters dañ koy def. tout récemment ba ñu attaqué euh, euh, les échos génne nañ communiqué. ils ont fustigé ça. Mhm. ne du yoon mais et pourtant waroon nañoo am tey. lëkkaloo yoo xam ne dañ koy lëkkaloo sax ay institutions yi fi nekk. parce que mm. tey man foofu laay xaar ay commission dialogue social mais en fait pourquoi effectivement li ngay cellule de médiation boobu ngay wax. Mm-hmm. organe de médiation boobu au lieu muy dem di nekk CJR. CJRS. CJRS est-ce que à l'interne. Mm-hmm. par exemple à l'interne. à l'interne est-ce à l'interne par exemple. pour man il faut il faut produire à l'interne xam nga pour man euh, pour man la petite faille. c'est comme si tu si par exemple un jour je me retrouve à am ku wax Youssou Ndour dara mhm. parce que simplement je suis chroniqueur à la à la TFM mmh. que je me mets à faire euh, oui que je me mets à répondre kon da nga mhm. doon manquant je ne suis pas un agent recruté par Youssou Ndour pour mmh. prendre sa défense mhm. loolu dafa bokkul ci fulla bokkul ci fayda bokkul ci personnalité bokkul ci personnalité parce que les médias ils mutent euh, ils dañuy évoluer ñi fi nekkoon ren mercato bi léegi mu ubbi. mercato bi day ubbi. et juste pour préciser lu manal wax. Uh-huh. parce que tamit euh, dafa am solo. Mm-hmm. ñu leeral ko. Mm-hmm. parce que Malal mu ngi wax ne sànq ne chroniqueur la. Mm-hmm. amul contrat. GFM amu fa dara. Mhm. man dañ ma interpellé. non am naa fa contrat. je suis un chroniqueur ah kon donc malal n'a pas été précis par rapport à. ces mhm. oui man dama fa nekk. Mhm. di fa liggéey. su amee question boo xam ne ça interpelle la boîte. vous comprenez. tey man bu ñu ma si laajee lu ma si xam war naa ko si mun wax. d'accord na. et malal. tey dafa wax. nekkuñu mën ak moom ci logique gu confrontation. déedéet non non waaw je ma ko te sax moom gindi naa ko sax ay affaires yoo xam ne peut-être ko woon. Mhm. yoo xam ne xamu ko woon et puis ba mu ne moom si boppam tey il il s'est senti trop mhm. wax ak Bougane. affaire bi xalaatul woon na dina ñëw ci situation yi ñu nekk. oui parce mhm. nit ñi jox. loolu nag xam nga ñoom ñoom kañuy waxal kañuy waxal buy Bougane. mën naa jooy dëjëm. oui xam nga kenn gënu koo pànk mën naa régler ay mbiram c'est-à-dire malal bañu bañu liggéeykat yi wax ko jàpp parce que malal il a été clair il a été parce que dafa ne liggéeykat yi am nañ droit wax ci mais xam nga li mu déploré mooy wax bu ñaaw bi. ak wax bi nga xam ne dafay indi. Ah wax bu ñaaw man d'accord moom loolu lay wax. non xam nga mais am nañ droit liggéeykat yi wax ci parce que seen patron lañ waxal. ñoo waaw ah. ñaar ñi sax laay waxal ak ba pare yéen est-ce que yéen a ngi toog ak seen patron de presse di waxtaan ak ñoom dëgg est-ce que réellement yéen a ngi wax ak ñoom cest comme par exemple xam nga ne lii mu def du yoon nga bàyyi ko ci mu def ko par peur nga wax ko ko mu dàq la wala mu am ak yow problème wala mu mere la ci dara tey buggaan lii mu def nii pour pourtant mënoon na ko def te kenn du ko yëg de mhm. mais pourquoi fësal bi pourquoi pour wane wala wala wala pour wan euh, maanaam pour que les choses jouent en sa faveur wala pour lan. maanaam lu tax ngeen fësal ne. bu jël na waa ji te kenn du ko xam. mënoon na ko def te kenn du ko xam. kon on n'aurait pas à être là di kàddu bu rafet. fii am na yoo xam ne mi ngi ko war a def man léegi bu yàggee ma fekk si ma la man bu yàggee ma fekk ma malal ko. non non non non non damay bañ mu téye kafem damay bañ mu téye kafem ak ataayam. non non non non non non fi dëgg laa est nag nga ko wax ne ko moom waaw tey bu paanoon rond point liberté 6 léegi wala Aïcha génn léegi dawal otoom waaw paan léegi rond point liberté 6 waaw yi of ko ci site of ko léegi si Sidi ne Aïcha bu kër Sidi moo pan rond point liberté wala moom lañ jàpp amul permis d'accord c'est de la communication <laughs> siwru jàmm borom ah. non xam nga en fait li bu euh, def du passé inaperçu xam nga en ah, ah. Euh, foo mun munti nekk. pour man marge de prudence nit daf ko war di jël. Uh-huh. man yàggul dara. nit ñi dañ dégg nañ ma fi man ak nit dof ñuy coow. Uh-huh. coow bu compliqué ah. Uh-huh. et à ma grande surprise. du boobu nga bëri am a grande surprise. ama a surprise. sama grand frère décédé le 29. yàlla 29 décembre yàlla na ko yàlla yërëm. nit dof en m'envoie un message. oh là là. C'est ça le Sénégal. pour me présenter ses condoléances. ce qui m'a permis de reconsidérer plein plein de choses. Ah, mhm. da nga cee lu bari. parce que àdduna. Mhm. ci àdduna le nekk ah. il faut mhm. que les il faut que nit ñi il faut que les gens fassent attention. man yàggul dara pour wax li li lu tax wax garaaw li. li Mbaye Pekh wax ci télé bi. ak rajo mais man bàyyi Mbaye Pekh non non dama ko dama ko non parce que. non dama lay wax. dafa wax dara. nit fekk ma ma toog fi ma toog di waxtaan ak ay nit. ñi may dégg di mën nañ ko seede. mu ne ma boo bàyyiwul wax ci suñu tarixa dégg naa tey Mbaye Pekh di wax boo bàyyiwul wax boo dégg naa li ñuy wax ci rajo beeg télé boo bàyyiwul di wax ci suñu tarixa dama lay rey. Hmm? ça ce sont des mhm. nit fekk na moom ma toog. c'est wax le lendemain il revient. Mhm. pour ma présenter ses excuses ma ne ko non. Mhm. comme que dag may rey. je te porte plainte. parce que c'est très simple de me dire oui. sur la base de benn pas bu tudd Mbaye wax na benn affaire à la rajo. yow nga jàpp ni li mu wax dëgg la et toi tu ne ma boo bàyyiwul sama sëriñ dama lay rek est-ce que tu mm-hmm. ci nit boo xamante ne bés bu nekk ñooy toog di añandoo c'est grave wax wax ci nit boo xamante ne xam na ma mm-hmm. kooku bu may bett mun naa ko bañ a yëg kooku mën na ma bett mm-hmm. pour wax la en fait les il doit faire attention et pourtant am naa possibilité même violence boobu waa jooju bëggoon ma teg ci même moment boobu ma hmm. teg ko même violence boobu hmm. mais boo amee jaar-jaar hmm. dangay ngay moytu da ngay bu fekkee dafa am yoo xam tamit da ngay moytu pour wax la en fait les gens pensent que en fait da ngay toog télé par exemple barki démb yàggul dara dans une émission ñun dañuy wëlbati dans une émission je je je dis ñiy liggéey guddi couvre-feu bi tere na leen liggéey taximaan yi ci lañ bokk telektel ci lañ bokk caga yi am carte ci lañ bokk mm-hmm. et on me prend ay imam jël ma di ma waxtaane man malal man maa autorisé mm-hmm. man maa autorisé caga yi ñu am carte déedéet. c'est le plus vieux métier du monde. Ah, ça c'est vrai ça c'est vrai. des cartes, elles mhm. travaillent. Mhm. et au-delà de de sax même bu fekkee métier bi entre guillemets. Mhm. mën nañ cee am suñuy jugement personnel. am na ñu mu dimbale ba violé wuñu. parce que effectivement. xëy na bu ñu gisul bu ñu amul woon kàtt bu ñu gisul woon ñooñu ba mën leen fay dinañu violé ji mm-hmm. Mm-hmm. donc en fait il faut que au delà yenn yi ñu bàyyi di ko juger avec de avec passion mm-hmm. ak ay émotion alors que ñun bu ñuy wax on prend sur nous la responsabilité de dire des choses quelque que soit commentaire yi si nit ñi def que les gens n'oublient pas que dañu jóge ci ay famille yu baax maa ngi tudd Malal Almaami Talla. Mhm. Sénégal bëri na ñi fi jàng alxuraan suma famille moo leen jàngal alxuraan. Mhm. bi Sénégal doonee Sénégal ba tey laay wax. Mhm. li may wax foruma ko fenuma ko sàccuma ko. que les gens arrêtent de s'arrêter sur diw day rab. booy rab di dundal sa njaboot nag. gënul nga nekk faux marabout. waaw ça c'est di. sukkandiku ci alxuraan di fen di sos fekk li ngay wax yëpp du dëgg neexul yàlla mm-hmm. loolu dafa gën rab mm-hmm. parce que nit ki dafay rab et puis les gens dañuy juger nit ñi te xamuñu nit ñi mm-hmm. par exemple quand les gens disent oui lan la diw amul sax nangam mais est-ce que am am mooy déterminer nit diw amul sax may ga est-ce que am am mooy déterminer nit est-ce que man li ma am damay toog tele ne waa télé kaay leen am naa lii am naa laa am naa lee. Mm-hmm. est-ce que man ñi may dimbali damay bind benn list dem dans les médias pour dire j'ai aidé des gens. d'accord il faut que les gens s'abstiennent am na loo xamante ne c'est pas élégant. d'accord nañu nañu góorgóorlu. Mm-hmm. bu fekkee dañuy wuyoo murit di wuyoo tijaan di wuyoo laayeen. Mm-hmm. wala di wuyoo ñaseen. nañuy góor góorlu ci suñuy comportement mm-hmm. pour man dagaawu wax yenn affaire yi mm-hmm. parce que man ruus naa di wax loo xamante ne dafay conduire nit ñi ci fenn fi parce que benn waxu ndawu Pa Mbaye Pekh a failli me coûter la mort ça c'est moo tax xam nga sànq bëgg ma ci woon egg d'accord d'accord mais dañu nekk ci dëkk mm-hmm. boo xamante ne et Mm-hmm. je pouvais mm-hmm. aller porter plainte contre lui mm-hmm. mais xam nga lu ma ci rus parce que kër gi mu am sacré cœur mook sama mag ñoo taqaloo woon kër Thierno Talla bu laas Thierno toxu na ma nga am xëy na Thierno laa ci rus parce que lu mu bon bon mook Thierno doon nañ demalante bu Tabaski jotee donc d'accord que les gens arrêtent de mhm. différer. d'accord d'accord Malal d'accord non en fait ça me fait très mal. non j'ai compris j'ai compris. c'est mhm. xam en fait dafa am lu rafetul. Mhm. dafa am c'est-à-dire bu nit ñi di wax dara il faut qu'il nañu xam conséquence su li ñuy wax nit boo xamante ne xam na ma ñooy toog ñooy añandoo. di lekkandoo di naanandoo ataaya. léeg-léeg mu xiim ataaya jox ma mhm. mais kooku sur la base de li benn nit wax à la rajo en direct mhm. koñ bi def ko débat moom mu nekk ñu ne ko mais yow li ma li diw di wax sax ci yéen la ko jëmale mhm. après après commentaire nit ñi ci li mbay mbay pee wax mais kooku mënoon na ataaya def ci poson jox ma ma naan. d' accord waaw d' accord léegi. léegi euh, man pour ñu pour ñu boo déggee sànq ma koy ma koy ma koy wax ma koy arrêté nii. Euh, mooy li ma ko au début euh, mbay peex man yow laay waxal directement papa tey sa doom mooy wax ak yow. c' vrai que c' est vraiment sensible. xam nañ ne yow ku la xam ci réew mi xam na la ci wax looy ñaw ku la xam ci réew mi xam na ci def lu baax ak wax lu baax bañ nga ko ba porte parole boo ko nekkee nekkal ko ki nga xam ne mooy xalif général des mourides ñëpp dégg la këri diine boo dem ñu jox la kàddu nga wax ñëpp xam nañ wax ju rafet xëy na nag njuumte du ñàkk gone de juum mag day jum mais ñaan nañ la papa wax dëgg yàlla lii nga wax ni euh, àgg na foo xam ne malal taala doy na waat itam wax na moom itam fi kër gi yéen ko bokk parce que fi nga fare foofu la fare xëy na wax la rek ñu ngi ci jéggalu papa wax ju mel nii euh, mu bañ a amati loolu man maa la koy ñaan man sa doom te damaa jàkkaarloo ak yow wax la ko nga dégg kon malal taala jéggalal góor gi wax ju jeex benn yoon ñu nekkaat ci leneen. bi tey bi daa bari yu wax ay Pierre Mbaye Pierre bari na yow yow si Mbaye Pierre ngay teeral Pierre Mbaye Pierre bari na yu muy def yoo xam ne nii nii. non non dootu ko wax dootu ko wax dama bëgg rek ma la taala nga baal ko quoi sunu papa la. baal ko voilà jeex na jéggal ko. je veux juste que tu répètes. pour que mu dégg bu déggul ñeneen ñi waxal ko li nga wax mu comprendre parce que ci Covid bi. wax na def na même chose. wax na lu rëy ay màggal ak yi fii la ne sëñ bu. léeg-léeg ñu yeew nañ fa benn nag ah sëñ bu ne yeew nañ fa benn nag. mais lu waxoon ci Covid bi la Covid bi Covid bi lu mu ci waxoon na ci sax. damay bañ taalibe yi fekk ma. biñ ko wooyee nee na ma nee na ma biñ ko ooyee. ne ko ne ko ne ko mbay tax la waaw ma ne ko mbay loo tontu gars yi papa. mu ne ma dama leen wax ne leen. Covid bi am na am na ci réew mi muy ci leen Covid. bañ ko bañ ko wooyee bañ ko wooyee laa la leen gis bañ ko wooyee. gars yi mais mais fierté la ci réew mi ah fierté la parce que vraiment. ah ma dama neex fii non malal action bi moo tax comme nu mu def nit dof uh-huh. parce que sànq tamit. Euh, il faut non bay peex moom wuy ma ah. ameel nga malal taala ameel nga malal taala ndàmpaay <laughs> papa yow laay waxal damaa bëgg nga taal sa oto dem xool fu malal nekk. Mm. nga defal ko teraanga gu rëy. tey nag ma woo ma wax ko ba ñëpp di gis ko. Ah. parce que yoreel nga ko teraanga <laughs> bi tey malal dafa wax sànq lu am solo. Uh-huh. te loolu noonu yaakaar na nekk na loo xam ne tey euh, euh, ndaw Sénégal yëpp war nañ si man bàyyi xel. Mm-hmm. mooy tey nit kii bu fekkee am nga jaar-jaar wala tey par exemple euh, ngay ragal def ay dérives yoo xam ne ëllëg mm. mun na am lu la jural mm. Mm. nee na xalaat na ko ba pardonné mm-hmm. tey ki nga xamante ne mooy nit dof mm-hmm. à travers juste un message émotionnel mm-hmm. et que loolu noonu yaakaar naa ko mun baale ak ku mun jéggale ak ku am prise de conscience moo ko mën def bañ nañ ba si diine sax dañuy wax dax ne yontu yàlla Yuusufa ba mu échappé si de ses frères dem ba nekk roi d'Égypte Mm-hmm. ñu woo ko ne ko sa frère yi ñoo la sànni woon ci biir teen bi mm-hmm. ñoo la euh, doon massacré ñoom mm-hmm. ñoo bëggoon def la sacrifice ñu ngi nii tey yow yaay roi bi daf ne qu'Allah leur pardonne le miséricordieux le très grand miséricordieux kon jàpp naa ne tey oh. dëgg la message bu fort nga lancé en direction de euh, Père Ablaye Mbaye Père te tamit sa cër nga def en tant que porteur de voix en tant que journaliste mais tamit gëm naa ne tam. Mhm. malal moom tamit war na mën a taal otoom. Mhm. dem kër Pa Mbay Peex. Mhm. ah non <laughs> parce que Sénégal. il faut il faut le faire en fait. Euh, le fait d'en parler man en fait bu doon dama ci am beneen yéene duma ko tudd ci émission bi. dëgg la dëgg la. am naa ay plateforme yu ma mën a tontoo ñuy wax ak man yëpp. quand loolu ñàkkuma ko. am mën naa ko ci way mhm. mën naa ko ci fan yi yëpp sid yi ñu ngi may woo pour inviter ma mais mhm. j'évite j'évite de prolonger le débat parce que pour man amul sens quoi mhm. donc euh, pour man na ñuy na nit ñi di góorgóorlu ci ci wax c'est-à-dire mesure dafa am am la mesure am la mesure mesure li nga xamante ne moom la ñuy wax xam nga contourner c'est-à-dire wëlbati affaire moo grave te mu leer la ni te léegi tey loolu lañ commencé dund avec les réseaux sociaux mm -hmm. c'est-à-dire nit ñi dañuy sukkandiku ci émission Kër Sidi nit ñi wax li ñuy wax bokkul ak leneen li ci yéene ki nga xamante ne mooy jëlaat affaire bi di ko exploiter mhm. parce que tout simplement pour donner à son à son site ñu am ay ay vues mhm. ay clics et cetera et cetera nga wëlbati nga dagg ci benn trois minutes nit ñi commentaire si saaga si nit ñi ay ndey wax ci lu leen neex et cetera et cetera am na laay fu doomu aadama yu bëri yu ñu yàq ci affaire yu demee noonu mm-hmm. nit ñi bu ñuy wax dara nañ ko waxee seen aqulaay taala mm-hmm. man lépp lu may wax à la télé mm-hmm. wala ma koy bind wala may toog ci presse di ko wax su ma koy wax je ne le dirai pas parce que on m'a donné de l'argent mm -hmm. je ne le dirai pas parce que effectivement je déteste la personne mhm. lépp lu may wax dama koy wax ak samay conviction personnelle mhm. musuma am intention mhm. ci àdduna bi ma nekkee malal ba léegi en dix ans xaaral ma bind nangam wala xaaral ma tey bu ma demee tey kii addunaam lay yàq tey sanage musul nekk ci samay ci samay intention lu ma lépp lu ma wax dama ko gëm te lépp lu may wax je l'assume jusqu'au bout. d'accord alors euh, referme euh, page boobulee. parce que nag malal waaw acca yow kon loolu mooy li Mollah Morgun wax <laughs> nee na fou malade est un fou et non il prend le corps d'un fou pour faire passer ses messages. donc c'est un fou malin. voilà de fou malade c'est un fou malin. mais après moom Mollah Morgun dina <laughs> am yow nag yow. comme euh. que sa taaw ñun ñoo ko jur. <laughs> yow. xam bi nga ma xam. moo war a gën a fort. xam bi ma Mollah Morgun di xam. parce que yéen. Mhm. ñun ngeen nopp. waaw. <laughs> mais da eh, eh, ngay woo. ngeen jur doom la bëggoon ba am ba am ak ñun doom. ba tuddee ma doom donc yow. waaw fii ba émission bi di jeex. waaw concernant da nga war point moom. <laughs> dégg nga mama tey mama tey jokkoo la dama koy xam nga moom nii la. mama ye mama wuyu ma jox ko jox ko ma jox ko li nga li nga bëgg laa ko jëlal bëgg laa jëlal. non attends dafa tëmbal benn affaire. waaw waaw waaw waaw wàcc buri non doo wàcc buri. doo naan deuxième doo naan deuxième doo naan deuxième. non non man kañ li ma wax jàll na ba pare ba deuxième après deuxième. oui mama mama joxaat ma ko ba ka voilà léegi yow kii. malal comme da nga ko defloo point mort xam naa fi ma doon jëm man fa laay jëm wax nga ko sànq nee nga tout au début que euh, da ngeen di féliciter liggéeyu Y'en parce que fête ngeen euh, seen euh, dix ans d'existence mm. jamono ji nag ñu gis ni que Y'en a fi ñu ko doon xaaree fu bëri nag dafa laj am na ci ñoo xam ne retour nañu seen veste yow daan nga tàngal waaye léegi dafa mel ni da ngay xiim di seddal léegi nag Y'en sax dafa mel ni dem nañu ba gars yi dañoo qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire moom nee na 10 ans lañ def. waaw 10 ans ngeen def mais man dama lay wax ne 1 ngeen réussir 9 ans da ngeen ko laaj. <laughs> te boo ma laajee lu tax ma la ko ma la ko moo tax man la askan wi fi mu toll ne ñun on a marre de Y'en a marre. merci nga loolu sañu ma ko woon <laughs> je vous comprends parce que effectivement. yéen a ngi ci mouvance bi. Mmh. c'est-à-dire li ñëpp wax. li li ngeen ne li ngeen jàpp ni ñëpp loolu la ñu wax. waaw. xam nga la journaliste lay. xam nga ba léegi. Ah. ba léegi. Hmm. ñi naan Y en des corrompus amul kenn ku ñu mbës a génn télé wala rajo avec des preuves à l'appui pour ne effectivement lii mooy preuve ne Y en a marre ko corrompre amul. ci dix ans yëpp te ci dix ans yëpp ñi nga xamante ne ñoo sos Y'en a parce que mu ngi tàmbalee ci kilifa ak caat mhm. ànd ak Fadel Barro ak Alioune Sané mhm. ñoom le onze lañu am idée bi diggante la onze ak le dix-huit man ma yëg ko Simon yëg ko Jili Baxdaat yëg ko ñu sos mouvement bi xamal ko àdduna mais ñooñu noonu ñuy woowee ak ñoom Sofia Sofiatou Denis Sow ñi ko sos mosuleen leen ni jàppante nañ xeex nañ xaalis moo leen boole tel hmm. am na nag wax yu jóg. Hmm. liggéey nañu ak Oxfam. ah foofu laa bëggoon ñëw. liggéey nañu ak Oxfam. te ah. bi ñuy liggéey ak Oxfam am na moom. liggéey ak hmm. dañu woo presse. teg presse conférence de presse. ne ñu ngi liggéey ak Oxfam. jox nañ ñu nangam. ci ay million yu bëri pour ñu amal benn programme bu tudd observatoire de la démocratie et de la bon gouvernance maanaam. Mm. ndenkaane dafay am saytu. Mm. pour que ngeen mën a dooleel ndaw ñi ci gox goxaat yi maanaam biir Waxinaan dooleel leen biir Matam. wax ak sa dooleel leen biir Podor. Mm-hmm. dooleel leen wax ak sa gox. wax ak sa gox dox ak sa gox. Mm-hmm. dox ak sa gox mu nekk programme bu am solo boo xamante ne dafa doon. former ndaw ñi ci contrôle citoyen mhm. contrôle citoyen mhm. contrôle citoyen mooy fexe ndaw ñi xam lan mooy le vote du budget mhm. fexe ndaw ñi xam lan mooy bonne gouvernance fexe ndaw ñi xam outil yooyu yëpp pour mën a contrôler l'action des mairies ñu jóge foofu def ak wax sa dépu wax ak sa député parce que wax ak sa député mooy lan député yi bu njëkk daan nañ ñëw di dig population yi ay autoroute ay tali wala ay hôpital alors que député mhm. lool du rôle Y'en a fexe tàggat ndaw ñi pour ñu comprendre question yooyu pour que effectivement mhm. au lieu boo amee problème gin gi ne xaarama woo caat wala malal fexe mu am ay leaders locaux mhm. mais tey xoolal à Podor Sambatal il est arrêté pourquoi parce que il a dit coronavirus pauvreté corruption l'État les services publics yi nga xamante ne agent yi mu teg ci service public yi liggéeyuñ ñu jàpp ko tëj on a voulu susciter ce leadership local la bi nit ñi xëy na xam nga 2011 oui on a créé la Y'en a on a fait l'actualité mm -hmm. on ne fait plus l'actualité mm Oui. Vous en êtes conscient. Oui, on est, on ne fait plus l'actualité. Mais Mais parce que effectivement Léthargie? parce que effectivement il faut que d'autres mouvements naissent. Mhm. diggante 2012 ba tey ñaata mouvement nga dégg. bari na. loolu du ma ne Y'en a kese la moo tax ñoo ñooñu judd mais bokk na ci li tax ñooñu judd d'accord ci biir Afrique également am na yeneen i mouvement yu judd te Y'en a xeex lépp Y'en a marre doon na échoué bu fekkoon moom rek a fi ne doon na échoué dafa mel ni rek buñ toogoon ci politique gu Sénégal ñu naan Pastef ñu naan kii moo fi nekk PDS moo fi nekk les partis classiques aujourd'hui on a Pastef mmh. il faut qu'on s'en glorifie c'est quand important pour ñu am une jeunesse mm-hmm. dans dans le dispositif des mouvements citoyens ñu am d'autres voies yi nga xamante ne on a frappe dégage frappe France dégage suñu différence xëy na ak frappe mooy am na fu ñu bokk ci politique ils soutiennent Sonko Guy Marie c'est un très bon citoyen qui lu am mu ngi ci mais am na parti politique bu mu bokk bu mu bokkal coalition ñun on ne se réclame d'aucune idéologie politique dañu mm-hmm. marqué suñu équidistance ak parti politique yooyu mm-hmm. léegi loolu ci diggante bi li Y'en def ak bëri ay ndaw yu bëri yuñ tàggat yu mën a taxaw ci gox-goxaan yi mën a porter yenn combat yi ba tey booy xool en terme de démocratie Fadel jiite na ko pendant nangami at mm-hmm. taxaw alit ñu voté ñu changé Alioune Alioune Sané tey moo koy jiite. Mhm. Alioune saane bu dawale ñu woote waat. Mhm. keneen jiite waat ko. Mhm. tey ñu bëri yi doon gis ci Y'en a ñuy toog di wax muy malal di caat di keneen ak di malal ak ñeneen. na ñoom Saliou ñoom Saliou bu Thiès ñooy wax. ñoom euh, ñoom Abdou Khafour. Euh, c'est l' il est le coordonnateur de l'esprit Y'en a marre de Diourbel. Mm -hmm. il noyau dur de Y'en a ñooñu ñooy wax parce que aussi. il faut que nit ñi di mën di déléguer yeneen i ndaw di leen jox sañ-sañ. donc c'est-à-dire man sama problème sama problème du loolu de. waaw ma li ma bi ngeen bi ngeen taxawee en 2011. waaw waaw mais xoolal mais loolu c'est autre chose. loolu mënatu fay taf taf ngeen jëlee fi Abdoulaye Wade. Ah, dem na mais dañu constaté que. mais ñun ko fi jëlee non yéen c'est-à-dire. bokk nañu waaw ñu yéen a woo ndaw ñu bàyyi rek bàyyi rek waaw yéen a éveillé. li indi loolu. mettre à l'écart politique bi Macky Sall faloog léegi. oui Macky daf leen maanaam yéen lu ngeen taxaw. Macky def ko ngeen kaas. Macky day jàllale. maa la ko wax doole. oui c'est-à-dire dafa ñëw wan leen ne leen leen ci man dara c'est-à-dire lu ko neex lay teg. mais mais loolu xam nga ça veut dire quoi. voilà c'est loolu moom la jaaxal quoi ça veut dire tout passe et puis tout passe waaw tout passe. mais mais loolu xam. voilà ah. yow xanaa noppi woo woon. yow xanaa noppi woo woon nii loola defoon. damay waxam damay wax ah yow waxuma lan toogal mu ne xoolal mosu am mu noppi loo mama damay ragal gat bi ñu amati dina ne mama maa ngi ooye mbaat xam nga mënal am baaxul xam nga xam dafa am benn affaire bu pour régler problème moom li muy wax euh. mati bi mu yegsee ci pouvoir bi ba commencé dawal hmm. honnêtement il nous a appelé hmm. ñu toog mu ne ñu ndax mu ne ñu bu leen mhm. ragal a gouverner. bu leen ragala ànd ak man. Mhm. ñu ne ko déedéet bugguñu benn poste. Mhm. bugguñu conseiller bugguñu directeur bugguñu dara mu ne lan ngeen bëgg ñu ne ko dañu bëgg di dajeek yow. tous les six mois tous les trois mois. benn yoon. pour wax la tolluwaayu dëkk bi. nga mën a jubbanti. mu ne ñu waaw bu ñuy am conflit ak moom. loolu mooy le premier malentendu bi ñu njëkk a am ak Macky. ak moom ok. sequñu xaalis man bu ma la waxee personnellement li ma bokk ak yi mhm. dina la jaaxal sama maam Macky Gassama. Mhm. ci sama tante Néné Galle Gassama. Mhm. sama maam Macky Gassama lañ ko tuddee moom. ok maire Fatick. sama mag Mamadou Talla. ministre de l' éducation nationale. moo may Macky jabar. Euh, moo tax mu jël ko fal ko ministre xanaa. non. non <laughs> non non non. non ko ngi bëgg a ñëw. grand bi dafa grand bi nag ñëpp xamee nañ ko jub ak. waaw moom moom dafa cool non moom moom dafa ku jub non moom kay moom moo la gën a yar ma leen du ma leen xalamal Racine. directeur u RTS. Mhm. bi Macky di nekk ak Wade. liggéey na ci directoire u campagne Abdoulaye Wade. en 2007. Mhm. Mhm. après effectivement. ñoom ak Macky ñu ànd liggéey. Mhm. donc rapport bi ñu am d'abord li ñu bokk. ci mhm. wàllu famille. Mhm. dafa sori trop. ok ok moom boo ko waxoon boo demoon si Macky tey. il te dira musuma am rakk bu dëgëree bopp ni malal. man ragaluma suba dem toog kër Macky. Mm-hmm. dugg kër Macky wala awma problème mu dugg ministère wala dugg kër Macky parce que loolu il faut que nit ñi dindi ko ci bopp nit ñi ku dugg ministère tu es un corrompu mm-hmm. ku toog ak président tu es un corrompu mm-hmm. loolu il faut que ñu dindi ko ci bopp nit ñi. ça c'est vrai loolu moom d'accord naa ak yow. c'est loolu moom d'accord naa ak yow. parce que parce que en quelque sorte tey. sénégalais yi ñoo dem ba nga xamante ne euh, dañu dañu par exemple citoyen bi. way affaire de corruption à telle enseigne que pour ñoom dafa mel ni dafa am deux camps. tey ministère malal war na fa mun dem. Mm-hmm. parce que tey bu ñu fàtte ne dëkk bi dafa am ñu koy administrer. Mm-hmm. on est des légalistes. non et puis ministère am la. way tey mun na dem tey ministère que soit ministère des sports. Mm-hmm. wala ministère de la culture. wala ministère par exemple de la jeunesse. pour des tâches de la jeunesse. collaborer wala nga soxla yoo xamante ne c'est du point de vue de procédure mm-hmm. au niveau de ce ministère mais tey jii nii bu ñu gisoon bi tey léegi mu taxaw benn ministère oui dinañ ne ministre bi de la communication boo waxee juum tudd turam sax comme lu muy wax les gens peuvent mal interpréter ça ça c'est vrai alors que loolu noonu tey tey je pense que loolu war nañ ko mun weesu au Sénégal ak nga xamante ne tey moom la ñuy wax ne fa la suñu démocratie ah, toll mhm. en quelque sorte parce que tey jii nii mais attends au xam naa wax pour être un bon chien mhm. nga jege xam li ñuy def xam nga Jean pour mën a bind moo ma yoroon euh, collecte de l'information mhm. daf ñu doon wax nañu ne refusez pas la soupe mais bu leen refuser sax bu leen bu leen refuser supp bi mais buleen leen refuser tëfli ci supp bi. Mhm. d'accord loolu la ñu expliqué. parce que mhm. man maa ngi rappelé sama mémoire maa ngi ko bindoon sur les rapports entre les hommes politiques et les médias. Et les médias. Mmh. rapport de conflit ou d'intérêt. Mmh. parce que souvent muy wax la question du contact et la distance. Mmh. parce que tey jii nii. Mhm. yow euh, Aïcha am na ñoo xam ne tey munoo wax ci ñoom lu ñaaw du question ko ne. da objectif rek da nga war a objectif de trop parce que journaliste nga mun ngeen am un passé commun wala une passion commune am na koo xamante ne tey mun na fi nekk autorité yéen ñaar a bokkoon chambre université ah wala yéen bokkoon benn kër ah wala yéen bokkoon benn club basket wala lenn wala am ñoo xamante ne tey yéen ñaar peut-être yéen a duggandoo néegu góor fekkente ne ay góor ngeen wala dara ngeen jaar ci ay passage xam nga kooku tey mënoo ko wax tey li nga xamante ne dafa jéggi dayoo dañ naan la sax bu fekkente ne ça te concerne ou ça concerne ton bàyyil keneen mu bind ko. ci li ngay yow bul dem sax bind ko. mais mais mais su homme politique yi ñaar moo am. waaw ñaar moo am si affaire si journalisme ak homme politique. homme hmm. politique moom ñaar moo am su ngeen di nekk xarit rek mooy da ngay bind si li moom lu ko arrangé. Hmm. politicien moom noonu la. boo bindee si moom loo xam ne arrangé wu ko wala loo xam ne wax moom arrangé wu ko mm. du la may jàmm moo tax moo pour ça non damay wax affaire de la pour mm. ma ne la rapport de conflit pour dénkale parce que noonu noonu ah. laa bindoon ba may def mémoire voilà consulté woon naa si ay ñu bëri maa ngi rappelé wu Tidiane Kese ah. Tidiane Kese nekkoon na fii dir purbe mm-hmm. bu mm-hmm. Walf Sport mm-hmm. Tidiane Kese moo nekkoon sama professeur encadreur moo ma doon jàngal en même temps bu lu ma defaan dama naan ñëw wan ko profité di ko gërëm. Mm-hmm. mu may jox ay orientation sur ça. Mm-hmm. te permettre na ma ma xam yu bari bari bari. si mm-hmm. rapport entre homme politique ak média. d'accord ak pour pour dugaat pour ci li ngay wax. waaw c'est-à-dire xam nga ñu bari Sénégal dañuy fantasmer ci affaire u xaalis. xam nga parce que xam nga oui ci diggante bi xam nga ku ku taxaw ak Obama. tax ay George Soros ñëw seet la. bu Osiwa. Mhm. ay Laurent Fabius euh, ñëw seet si la loolu ñuy wax. Mhm. pour nous la presse n'a pas joué son rôle. Mhm. parce que ñoon ñëpp bi ñuy la presse. mais bi po polémique bi jógee. ñu ne ñii ay lobbyistes mais ça la communication de l' État. est la communication de l' APR. contre Y en parce que aussi APR arrangé wu ko. que des mouvements continuent d' la di nit ñi di leen gisee comme des mouvements constants mhm. maintenant mhm. pour que l'APR puisse continuer à faire li mu bëgg a def mhm. il faut que Y'en bi xëpp ci euh, ci euh, cere euh, suuf ci cerem il faut que effectivement ñoom aussi qu'il déploie ay dis ay ay il que en fait ñu communiquer ci ay affaires yuy indi jiixi jaaxa ci bopp Y'en ci bopp sénégalais lu mel ni par exemple dafa am benn boo leen di xool bi élection ban élection maa doon moo doon waaj ñëw je pense élection présidentielle ñu ñu tàmbale benn campagne bu tudd parrain pour inscrire le maximum de jeunes parce que boobu parrainage bi parrainage bi gars yi d'accord uñ si woon la mhm. loi elle est passée mmh. mais c'est pas parce qu'une loi est passée mmh. que les gens n'ont pas eu la possibilité de manifester que en fait il faut arrêter le combat mm. wala il faut continuer dans la radicalité il faut trouver yeneen alternative mm. alternative bi ñu bi ñu trouver woon bi parrainage bi jàllee c'était nous dire effectivement il faut que inscrire le maximum de jeunes de mm. jeunes pour produire une masse critique forte ci biir élection yi bi ko Macky yëgee li mu njëkk a def mooy ENDA ligue francophone bi nga xamante ne bailleurs yi fa la ñuy jaalale xaalis bi ñuy jox yaanaa maar mm-hmm. ñoom la nangu seen agrément donc en fait xeex la tàmbalee ak Y'en a marre pour dire que effectivement puisque woo naa leen ci gouvernement bi ngeen bañ puisque tel et tel woo nañ leen ngeen bañ finalement man aussi je vais créer les conditions yoo xamante ne doo dootu leen amati ay ressources mhm. damay fexe foo leen laajee autorisation wu caravane préfet bañ ko benn benn caravane lañ jot amal mooy bu mhm. géejawaay bi mhm. yeneen caravane yi si des yëpp dañ ko dañ ko refuser ba pare bloqué les ressources yi nga xamante ne moo mënoon dimbali. Mhm. yaanaa maar mu déployé dans tout le Sénégal. Mhm. parce que sous Wade on a pu sans grand moyen ñu déployer dans tout le Sénégal pour sensibiliser les jeunes. dimbale leen ñu inscrire mhm. retirer seen carte inciter leen ñu dem voté wu ba pare pousser leen pour ñu sécuriser seen vote. d'accord d'accord léegi léegi sénégalais xam nga wax nga ko. attends euh, mhm. bi demee ma rek boobu. sénégalais wax nañ ko ba nga ne yow si ñun sax dañuy topp mouvance su sénégalais yi c'est vrai ñun aussi dañu fi nekk pour <coughs> alerter pour veiller. li nga xam ne ñun mun nañ ko seetlu moom mooy ne que te d'accord ma ci yow tout au début bi nga ne euh, Y'en a nekkoon na fi mais maintenant nekkatul au de la scène et c'est tout à fait dañ leen kii parce que jàppa nga ne également am na yeneen mouvement yoo war a dund yoo xamante ni war nañu mën a tamit ñoom am seen place ci euh, euh, euh, société bi mais tey jii Sid Lamine Niass ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana moom saa bu dara amaan day taxaw ngir xeex mais bu xeexee du ñàkk ka nga xam ne xeex na ba nga xam ne kooku toog na ci place sama jàppale ko woon mais il était là pour le peuple te terewul kooku da koy woo di ko proposer mais xam nga la koy wax mais xam nga lan la koy wax je suis pour le peuple. te tey jii maa ngi veillé maa ngi xippi sama bët di xool. waaw d'accord xoolal même bu ci tegee sax bi nga joxee dafa baax. voilà mais baal ma exemple. bu tegee 3 mois dafa loo ma exemple Walf bi nga joxe xam nga lan moo tax mu baax. Mhm. est-ce que aujourd'hui Walf est regardé. Mhm. est-ce que audience Walf ni mu tolloon noonu la toll non. la naissance d'autres médias l'émergence d'autres médias dafa yóbbu lenn ci lenn ci ñe d'accord c'est aussi simple que ça ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'il existe d'autres média que Walf est corrompu hmm. wala que en, en, en fait que Walf ne défend plus li mu doon défendre hmm. c'est-à-dire Y'en a marre par exemple Madeleine bi Madeleine bi muy door a xew hmm. Madeleine beñe Madeleine bi muy door a xew ku jóg mat leen ngay jëndi mm-hmm. mais bi gars am ñu créé mat leen koko mat leen koko <laughs> am ñu créé mat leen raisin waa léegi léegi moo yaa mais est-ce que dafay tere yaanaam est-ce que dafay tere Madeleine doon Madeleine. léegi c'est-à-dire am na ay. waaw d'accord ah, damay damay def benn pause parce que. léegi yow Madeleine nag nekkoon. mooy Madeleine ma fa mu nekkoon. <laughs> <laughs> <laughs> xam nga mën na naka fa mu nekkoon. <laughs> waaw loolu rek ma nga fa mu nekkoon. waaw ah, tey oui ma daa ah, dama am lu dama lay dàgg. xamul dama lay dàgg mais sama waa ah, ji sama waa ji reen a reen ju sëy ma nga nekkoon fu mu nekkoon quoi. amul loo ma koy dàgg amul loo ma koy dàgg jël ci ndox mi nga naan. jël ci ndox mi nga naan. waaw waaw baax mi parce que dañuy sponsoriser sa santé. doomu réew Sénégal moo ko defar Mamadou Yatassaye. Mm. Sénéprot ñoom ñoo defar Aquaterra. Mm. ndox boo xamee ni dafay dafay dafay dafay kii sa santé maanaam daf koy sponsorisé ah ndox mu léger ndox mu pur mu am solo olof yi de olof yi de. dee koy naan. waaw ma dee koy naan. <laughs> mais dafa am barki démb. <laughs> barki démb. xam nga toujours ñun euh, euh, euh, Sénégal. dañuy wax rek biir Dakar ak yooyu. xam nga dama am dëj barki démb. Mhm. ma dem fu ñuy wax Lambaay. Mhm. affaire bu doy waar laa seetlu. c'est-à-dire autoroute jaar na noonu. normal. ñu tali ko. ci suuf pour nga mun a rek jaar ci pont bi pour dañ ko defal pont rek pour nga bañ jaar ci autoroute à mais pont bi dañ ko pont ni ba pont bi wàcc rek ñu dagg tali bi li ci des yëpp li ci des yëpp la ba ci biir dëkk boobu te commune la lu garaaw laa lay commune. Mm-hmm. am meeram. Mm-hmm. commune am meeram. Mm-hmm. ñu def ko noonu pont bi lañ defar nii rek pont bi jeex rek ñu dagg tali bi. léegi li ci des yëpp rang rang la. neuf kilomètres kenn munu ko tali goudronné te pourtant nee nañ bi ma laajtee euh, askan bi dañ ne ma bi ko gars yi di defar pont bi ñoom dañu demoon ñaani autorisation pour mun a marche parce que oto chinois yi fa la doon jaar di dem di jële carrière ba seen biir dëkk la ñuy jaar pour uti carrière ba donc ñoom amoon nañ chance su ñu talil leen ko mm. Mm. ñoom sax dañuy gën a mun a dem mais nanguwuñ ko tali poussière bi da leen doon sonal kër yi xonk nit ñi di soj ba pare ñu ñaan marche seen maire ba seen maire ba dem te xeex pour marche boobu bañ a am parce que dafa jàpp ne jeunes yi dañ ko contre. Hmm. ba par la suite le jeune jaar ci kaw bañ may leen marche bi ñu dox ko te mu mënoon cee ànd ak ñoom. Hmm. parce que lu koy defaral la. su ci àndoon ak ñoom ñu tali ko. mais actuellement dama yegg gis ko ñu ma koy joytu nag. Hmm. ma ne non lii il faut que ma wax. Ah, mais loolu sama devoir la. et puis maire bi maire bi maire bi maire def na erreur sax. def na erreur parce que erreur bi mu def mooy. tey jii gars yi dañu dañu dañuy fàtte mairie moom du defar sax tali. day ñëw wax nombre de kilomètres yu mu soxla. Ageroute ñëw dóoral ko ko defal ko ko. Mm. tey jii nii en quelque sorte te ku wax tam Ageroute di nga wax tam état. Mm. tey yaakaar naa ne tey il faut que euh, euh, euh, la la voix. Mm-hmm. de ceux qui sont en bas. Mm-hmm. par ceux qui sont en haut. Mm-hmm. parce que transport dafa am solo. si dundu doomu aadama rawatina. pont boo xam dañ ko dagg. dagg ko ba pare. ay mu nekk carrière ay camion chinois di fa jaar mhm. parce que mun na indi tey ay problème sanitaire mun na indi aussi inaccessibilité te mun na téye tam économie problème nga dem ba nga xamante ne da ngay am problème sax pour liquider mhm. say marchandise wala mhm. pour mën a dem fële jaayi wala pour parce que gis nañ fi ñoo xamante ne dañ daan am ay soow yu bari mais dañ ko daan mujj obligé di tuur parce que dañu doon am problème ñoom sama sama waawal fajjire yi ñëw waaw léegi ba mu bugaat moom ba mu bugaat moom mooy bàyyi defar yàlla ci réew mi hmm? ne ko na dem lambaay mu guduroo leen dafa dem na lambaay waaw non mu def fa guduroo mooy bàyyi defar yàlla na sax kaa defar benn affaire waaw gis nga gis nga bugaan waaw ay xam ne Bougane porte na ma plainte te sama copain la. ah oui. yóbbu na ma tribunal. ah oui danaa démissionné mu yóbbu ma tribunal. Ah, waaw mais xoolal gars yi ci cadre liggéey bi rek. est-ce que bëri ci ay morom ah, ok ma bëgg ñoom ay ñoom Adja bi tey ñun ñëpp la porte a ah waaw ah, bi ñu tribunal. <laughs> mais ma ñëwee xool affaire bi ma dama ne non. règle du jeu la bi yow ak Bougane dañoo gaañ baal naa dugg parce que ku si dugg des si <laughs> a ah? ba ma ñëw <laughs> ah? ñun làmbaay dem nañ fa mhm. dem nañ làmbaay dem nañ ba péncum làmbaay ah. xam nga làmbaay ñaata village la am cinquante deux villages ñoo ko nañ ba làmbaay làmbaay Euh, neuf heures waaw daanaka ay vingt trois heures lañ fa jóge mais nag gis nga affaire da yoon bi ngay wax ne nañ ko defaral gars yi waaw hmm? mhm. gis nga waa ji bu jékki-jékki woon bien comment mun na am yéene defar ko mun na am xol bi ak dugg-duggam parce que loo ko mu contre contre nag am na dugg-dugg ak génn génn mun na créer benn affaire ok ok bu ko defoon léegi affaire bi sax Macky Sall jërë ngeen jëf oui ma oui ma oui ma baax na ñu may door oui ñu may door ci kaw bu nga defal malal malal malal wax ko mu ndaw émission bi jeex na ne ko émission bi jeex na na def ci bi bu dee. man waaw waaw waaw Aïcha waaw xam na lan bu woon. waaw c'est-à-dire que bu ñëwee di fa defar tali. waaw lay njëkk def comme defoon ba mu demee Joal. di gis pêcheurs yi. yi ne ko doo fi gis. pêcheurs doo fi taxaw pêcheurs yi. waaw di ko bombardé lacrymogène. jërëjëf kon nag gars yi bu leen jàppee. bu leen Sall mi ngi lay <laughs> <laughs> Ano ba <laughs>